أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل سهر رمضان على سائر السهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات وتجارة التي لن تبورا وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحيم الرحمن الذي خصصه رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسها الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته comme niñ ko baaxoo di def ci bëccëgu weeru koor bi ñu ànd ak yéen ci téere yàlla bi tabaraka wa taala ngoonuk tey gi ñu ngi tàmbalee aya 122 ba aya 123 mu nekk ñaari aaya ñaari aaya yoo xam ne borom bi tabaraka wa taala mi ngi ci waar yahud yi waaye yemul ci waar leen mi ngi leen ci fàttali waaye mi ngi leen ci woo ci woote yi gën a tedd ci woote yi mu woo leen ci woote yi gën a neex ci woote mu ne leen nañu fàttaliku xéewal yi nga xam ne moom la leen defal moom borom bi tabaraka wa taala te xéewal yooyu bari lool mu leen di fàttali xéewal yooyu mu leen defal nga xam ne bi ci gën mooy yàlla leen tànnoon ci seen niti jamono teg leen ci kaw gënal ñu gënal ko lépp gënal ko ñépp soo gisee yàlla di leen fàttali xéewal yim leen defal nag mooy pour ñu sant ko ndax xéewal lan mooy tax mu sax mooy sant yàlla lu tax xéewal di fa nekk mooy sant yàlla yàlla loolu moo tax mu leen di fàttali xéewal yi ngir ñu mën koo sant ndax moom yàlla tabaraka wa taala ci dëgg-dëgg mu leen di sant di leen digal pour ñoom ñu sant ko sant xéewal yi nan lañ koy defee mooy ñu gëm yàlla gëm yonentam dugg ci diine lislaam diine ji lislaam bi nga xam ne mooy diiney dëgg naka noonu la leen digale moom yàlla pour ñu moytandiku mbugali yowmal qiyaama ndax yowmal qiyaam day laa tugni nafsun an nafsin shay'a benn bakkan du jëriñ yowmal qiyaam beneen bakkan loolu moom bu yeboo ñu nangu ko ñun waa Sénégal bu yeboo ñu bañ koo nangu bu yeboo ñu gëm ko bu yeboo ñu bañ koo gëm mooy yowmal xiyam kenn mënulu fa kenn tus yàlla moo ko wax te yàlla moo wax dëkk nee na bis penc kenn mënulu fa kenn dara kenn du fa joxe xaalis caution ba ñu bàyyi la kenn du fa joxe njot kenn du fa ràmmu rawatina nag kañuy ràmm bu fekkee ab kàccoor la wala mu nekk ab yéeféer su fekkee ab jullit bu baax la woon sax bu ragaloon yàlla doon topp yàlla manees na koo ramm waaye ab yéeféer kenn du ko ramm yowmal qiyaamati yéeféer ramm yowmal qiyaam du ko jëriñ kenn du am yowmal qiyaam ku la dimbali boo jaamul yàlla tabaraka wa taala képp ku doon mooy yàlla fii ci àddina yowmal qiyaam doo am ku la jañal mbugal doo am ku la indil ndimbal abadan kon bokk na ci ñaari ay ay bu mujj bi yàlla di ñu leeralal ne bu ñu bëggee jëriñu bu ñu bëggee rëcc ci mbugalum yowmal qiyaam dugg aljanna nañ ko topp moom yàlla tabaraka wa taala nan lañ koy toppee mooy ñu gëm ko moom yàlla roy yonentam sax ci jëf ju baax ñu jéem a jikkowoo ay jikko lislaam mooy te ndiku kéeféer ak mooy yàlla ñaari aaya yi doomu ndey yi ci lañ fas yéene jeexal ngoonuk tey gi ñu ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu nangul nu ko nangul leen ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون ñaari ay yi moom lañ passé na jël insha allah borom bi tabaraka wa taala mu ne yaa bani israil ee yéen doomi yaqub yi yaqub doomu ishaq ishaq doomu ibrahim alayhi salaam ibrahim xaritu yàlla li tax sànq ñu ne yàlla dafa woo israéliens yi woo leen ci woogu neex woogu neex gi mooy lan daf leen ne ee yéen doomi yaqub xoolal yàlla mu ne la leen wax ee yaa ayuha nnaas wala mu ne leen yaa ahlal kitaab ee yéen ñooñu téere wala yéen ee yéen nit ñi wala ee yéen diw waaye xoolal mu ne leen ee yéen doomi diw li tax ñu ne xam ngeen ne Israël banu Israël ñooy yahudi yi yàlla mun na leen wax leen ne ee yéen yahudi mais def leen ne ee yéen doomi Yaaqub te woote bi haza nida assalis allazi naada allahu taala bihi bani Israël bi mooy troisième woote ci suratul baqara bu yàlla woo banu israil muy yahudi bi mooy troisième woote bu fekkee yéen a ngi ànd ak man ci aaya yi bi mooy troisième yaa banu israil ci suratul baqara yàlla woo na leen ne leen yaamuruhum mu leen di digal bi zikri ci ñu fàttaliku niamahu xéewalam moom yàlla dafa baax doomu aadama bu ko yàlla defalee xéewal mu bañ a sakk jëf xéewal yi ko yàlla defal yàlla mu ne yaa bani israil ee yéen doomu yaqub yi yéen yahud yi ngalawaay uzkuru fàttaliku leen tudd leen ni'matiya sama xéewal allati xéewal gi nga xam ne an'amtu alaykum xéewalal naa leen ko mani diggante jëkkër ak jabar sax jëkkër juy financé bëgg na quand même jabaram reconnaître xéewal yi mu koy defal wala ndaw soo xam ne manqué wul dara losé nga ko ci immeuble appartement yi dàq ci appartement yi oto moo koy yóbbu aller retour mi ngi lépp dara manqué wul mais saa yu leen waxee mu ne la wala kaane bi tus nga ma defaloon est-ce que di nga kontaan ci moom te yow xam nga ne kii moo gën ay moroomam moroomam yëpp bëgg nañoo nekk fi mu nekk kooku sax diggante jëkkër ak jabar mais diggante doom ak baay baay di la defal lépp koñ bi ñëpp ñee la ndax sa bàyyi lim lay defal te bis bu nekk rek nga naan ko père yow daal père da ngay da ngay waaru quoi booy waaye tës nga ma defaloon est-ce que sama fa day kontaan ci yow diggante patron bi ak booy bi sax patron bi di def lépp mais booy bi di sakk jëf gis nga noonu jëkkër ji di ko bañee ci jabar ji baa ji di ko bañee ci doom ji patron bi di ko bañee ci booy bi lu raw loolu la ko yàlla di bañee ci ay jaamam yàlla dafa defal jaam ñi ay xéewal bëgg ñu ko reconnaître xéewal yooyu léeg-léeg nga dajab ab sénégalais nga ni ko ça va mu ne la sénégalaisement temps yi da ngay waaru ko affaire yi dafa dëgër sénégalaisement rek saa yu déggee ku la ne sénégalaisement mooy affaire yi baaxul pourtant ça va mbokk yooyu ci ginnaaw mën nañoo jege si jóge ci place su jigéen ñi ci ginnaaw jigéen ñi ñoo fay nekk pousse leen ci kanam incha allah ñëw leen ñëw leen ñëw leen ñëw leen ñëw leen ñëw leen mbokk yi mani allahu subhanahu wa taala dafa bëgg su la defalee xéewal nga reconnaître xéewal du xaalis kese xam nga ñun lu tax suñu xel gàtt ñu gàtt gis-gis mooy li ëpp ci nit ñi li ëpp ci waa réew mi dëkkee ndakaaru Sénégal xéewal ci ñoom mooy xaalis fekk xéewal ay façon yi façon yi façon yi façon la bu la yàlla xañee xéewalu xaalis may na la xéewalu wér te pourtant xéewal yépp nag xéewal boobu tudd wér moo gën ci xéewal yi tey bu ngeen demoon hôpitaux yi di ngeen fekk benn milliardaire bu mënul lekk mënul lekk moom problème mooy du lekk wala bu lekkee du rees wala mënul saw wala mënul dem douche pour mu dem douche foog ñu yóbbu ko ci ay machine wala ndeysaan nga fekk ay benn millionnaire bu amul rein mu ngi bëgg a jënd rein gisul ku koy jaay rein am am na benn woykatu américain ku am xaalis la jàpp naa ne mu ngi tudd Stevie Wonder am na de mooy ku gumba gi da doon wax ne ku fexe ba ma gis sama jabar ak sama doom sama yaay ak sama doom ku fexe ba ma gis leen rek dinaa la jox sama alal lépp moom dafa judd nekk gumba mu am yaayam xamul yaayam nu mel mu am jabar xamul nu mel mu am doom xamul doom ji nu mel kon xoolal yow yàlla may la xéwalu bët est-ce que xaalis mën na jënd bët ah boo ñàkkee bët nga yor conteneeru xaalis demal hôpital ndax dinañ la jaay bët gis nga bu la yàlla xañee bët ba ba ngay dee doo am bët kon yow mi am bët naan yàlla defaluma xéewal yow xamoo lu la yàlla defal moo tax doomu aadama yi dañu mën a sakk jëf yàlla daf leen defal ba mun a génn te gisuñu leen yàlla defal wan banu israil ci lañ bokk moo tax yàlla di leen woo naan leen uskuru fàttaliku leen xalaat leen tudd leen ni'amatiya sama xéewal allati xéewal bi nga xam ne an'amtu alaykum xéewalal naa leen ko yéen waa banu israil ma bàyyi ñëpp may leen ko yéen xoola yàlla bàyyi ñëpp may la yow lim la may koñ bi nga dëkk est-ce que amul foofu ñu dul gis am noo la amul koñ bi nga dëkk est-ce que amul ñu dul dégg am noo la amul koñ bi nga dëkk est-ce que amul ñu dul wax koñ bi nga dëkk est-ce que amul ñu amul loxo est-ce que amul ñu amul tànk est-ce que koñ bi ñëpp a wér est-ce que ñëpp a am xoolal yow yàlla may la di lépp benn mbir rek la la xañ mooy amoo te xëy na sa am-am sax li sax amoo mooy yow yaa yàccaaral parce que yaa tëdd di nelaw jàpp ne alal da lay fekk si ci sa kaw lal yëngatu ji woo génnoo sàkku ji woo am-am. moo tax sa am am sax kale parce que yàlla moo assuré ne ku génn doo duggaat lu di nga indaale dara yonent bi moo ne su ngeen gëmoon yàlla ngeen wàkkiirlu ci yàlla comme picc yi ni ñu gëmee yàlla wàkkirlu ci yàlla yàlla dina leen wërsëgal ni muy wërsëgalee picc yi picc yi dañuy xiif génn balaa ñuy ñëwaat suur ba indaaleel seeni doom law annakum tawakkaltum ala allahi haqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu tayr taxdu ximaasan wa taruux bitaana picc yi bu ñuy génn dañuy xiif mais bala ñuy ñëwaat suur gaynde ban société lay liggéeyee grand moulin su ko sim fa lay liggéeyee te pourtant gaynde yàpp lay lekk wante du lekk yàpp bu sedd bu tàng jër te chaque jour mu lekk chaque jour gaynde lekk yàpp di nga gis gaynde goo xam ne nee nañ am na juróom-ñaar fukki at juróom-ñaar fukki at yëpp lu muy lekk ñax ngooñ yàpp te yàpp dafa seeram doomu aadama dina toog ñeenti semaine du lekk yàpp yenn saa yi wala léeg-léeg ci ñun sax am na ñoo xam ne tabaski ba tabaski la ñuy lekk yàpp gaynde nag chaque jour mu lekk yàpp mu koy jële est-ce que day dem marché jënd allahu akbar yàlla moo koy wërsëgal yàlla moo koy wërsëgal lu tax parce que dafa jox boppam yàlla dafa gëm ne moom yàlla moo koy dundal ndax yàlla moo wax ci alquran wa ma min dabbatin fil ard illa ala allahi rizquha yàlla nee na lépp luy dukkat ci kaw suuf dundaloo sa bopp man yàlla maa lay dundal léegi nag xam ngeen lan mooy am différence doomu aadama yi dañu ne yàlla ñun doo ñu dundal ñooy dundal suñu bopp moo tax ñun ñëpp di sonn moo tax fi mu nekk nii bala ngay dund rek say baqate na bàcc sa rangoñ sa ñaq tuuru sa rangoñ tuuru nga doog a dund kër-kër yi ngeen di gis activités yi ngeen di gis fi mu nekk nii boo demoon digg Dakar heure bi wala huit heures neuf heures doo mën a daw lu tax doo mën a daw ah embouteillage nit lu tax ñun activité boobu xam lu ko waral ñëpp dañoo bëgg dund te pourtant yàlla mu ne man maa yor dund gi de man maa leen assuré mais doomu aadama yi ne dañu ne yàlla ñun ñooy dundal suñu bopp yow bu yeboo nga nekk arche nga bàyyi yi ñu dund gis nga rabu àll yi gëm ne yàllaa leen di dundal xar kuy fu muy liggéeyee mbee mbee bi xar bi fu muy liggéeyee kan la seen kër am xar bi seen kër am na xar xar yi fu ñuy liggéeyee dañuy tëdd nga romb leen ñu ne la merde sunu ngooñ waaye yow mbee merde ñu ni ngooñ bi nga mar la mbay nii rek joxoñ sunu ngooñ nga jox leen seen ngooñ ñu lekk ba pare ne la sunu ndoxanamu nag et puis ñun cinq semaines a ngi sanguwuñ xam waaye yow nga dem jënd saabu ñëw sang ba set ndeysaan moom mu tëdd fa tëdd rek nga dem bale fi muy fanaan ba mu set moom tëdd rek liggéeyu mu ngi lekk di naan di tëdd di nelaw di yeewu tous la deful yàlla moo ko assuré mais yow mi nga xam ne da nga ne yàlla bul ma assuré da ngay daw ba dee bala ngay jot li nga lekk li ngay li ngay lekk ngay daw ba tas du xar kese de rabaali yëpp la parce que ñoom dañoo gëm ne yàlla moo leen di dundal billahi lazi xoolal melantaan fu muy liggéeyee day lekk di naan xool leen yoo pompe ngeen ba sonn poudre ba sonn yooyu ni leen may leen ñu jàmm ñun dañuy dund te ci yéen ñii la ñuy dundee booy ba ngeen pompe ba sonn mun leen ñu fee jële yàlla moo leen di dundal wa ma min dabbatin fil ard illa ala allahi rizquha yonent yàlla Suleymaan dane woon yàlla bàyyil ma dundal adduna bi Suleymaan dafa amoon pouvoir yàlla mu ne ko Suleymaan mënoo ko mu ne ay weer yàlla mu ne mënoo ko mu ne semaine yàlla mu ne mënoo mu ne ñetti fan yàlla mu ne mënoo ñaari fan yàlla mu ne mënoo ko benn fan yàlla mu ne ko Suleymaan mënoo ko mais jéemal 4 kilomètres carré Suleymaan teg ko ay lekk cin comme cin yu ëpp suñu ngénte yi jinne yi ñoo doon togg Suleymaan moo jiite woon jinne yi ci gouvernement am lañ nekkoon 4 kilomètres carré ji ney teg ko ay mban teg table bi lekk bi jotee Souleymane daa di woote daan ne képp ku yàlla doon dundal bisu tey bii man maa yor sa dund ñëwal lekk benn rabu àll moo génn ci géej gi daa di raatale cin yeeg table yeeg kuddu yeeg lekk yépp ne ko xaaf ba pare ne Souleymane ragalal yàlla ci man benn bi nga ma jox yàlla ñett la ma doon jox des na ñaar suuraguma te ñeneen ñi lekk guñ Souleymane si jóot xam ne yàlla moo mun dundal adduna bi mais kenn mënul dundal adduna bi adduna bi yàlla doon moo ko mun dundal xoolal bindee fi niñ doon waxuma waxuma rabu àll yi de waxuma njanaaw yi naaw de xoolal nit ñi rek nit ñi nit ñi ñëpp yàlla moo leen di dimbali xool leen xaru tabaski jouru tabaski ñaata kuy la ñuy rey Sénégal hmm? boole ci Gambie teg ci Mauritanie kole ci Mali ñaata la jëlal àddina bi yëpp nga xool ñaata kuy la ñuy rey par tabaski est-ce que xar jeex na ah xoolal li ñuy rey benn tabaski kese lañ mos a rey daal di noppalu yeneen yi xoolal nag yi liñ ciy rey xoolal xar yi liñ ciy rey xoolal ginaar yi liñ ciy rey te ba léegi mu ngi am xoolal jën yi ci biir géej li bateau yi génne par jour suba ak ngoon kon man yàlla moo ko yore bu ko doomu aadama yoro ñu ko financé comme nii ñu koy financé léegi mu jeex boo weddee dama sa compte ngay ubbi di joxe rek bu yàgg na daan ni daan ne gaa yaa affaire bi jeex na de yàlla ne moom du jeexal walillahi xazainu samawati wal ard yàlla moom moom magasinu asamaan yi ak suuf xoolal ndox ndox mi di wàcc bu doog bu tawoon ba pare ñu ne benn waaye mooy fay facture yi fu mu jëm xoolal ngelaw li ngay noyyi oxygène pur soo génnee gaz carbonique garab yi jël ko garab yi génn oxygène nga jël bu ñu la ne woon changement boobu pour nga am oxygène da ngay fayan koo jëm kon doomu aadama yàlla defal na ko xéewal la yàlla defal na ko xéewal xoolal nopp li muy dégg xoolal bët li muy xool xoolal bakkan li muy noyyi xoolal gémmiñ li muy wax bal xoolal sa biir bi sax lekk yi ni muy changeante bu fekkoon ne bi nga lekkee ba léegi benn lekk mus sa génn lekk yëpp a ngi toog foofu ci biir kon dinañ la tegal benn palaatu ginaar ne la kaay ndogu nga ni noonu temps yi lekkuma ko am lu tax parce que affaire bi moo amatul place mais day am changement lii di dugg lii di génn naka noonu ndox mi te yéen ñëpp jàng ngeen ne biiru doomu aadama lekk yi ngay lekk dafa am lekk yi boo ko lekkee pare ay machines yu nekk ci biir di liggéey lekk bi def ko deret li ci bon mu yóbbu ko ci toilette yi ndox mi kazaalik ah di segg ndox mi di yóbbu li ci bon mu nekk ay toilette nga yóbbu ko dem sa tuuri ko ndox machine yooyu appareil yooyu fan lañ nekk ci yow kan moo ko fa def yaa ko jënd def ko na benn yàqu nga dem ci mécanicien bi ne ko bon sa oto bi bu paanee léegi nga dem mécanicien non oto bi benn kii moo sauvé ñu dem jënd changé wala engrais doomu aadama rek na benn yàqu pare nga su bët bi yàqoo tuuru pare nga su bëñ bi dañee pare nga dinañ jël espèce bu ñu def ko fi de waaye xam nga ne du moom de ndax dootoo mën a sàq mi booy sàq mi ni ngay def denc ko ba pare sàq mi daal di poosawaat wala yi yàlla def ci xoolal bëñ gi bëñ ban matière ban élément la ko yàlla defaree muy dagg day dagg ni paaka di daggee te soo nee nii doo dagg te boo fi dugalee yàpp léegi mu dagg ko boo ci dugalee mburu mu dagg ko loo ci dugal mu dagg ko te bu ko yéeyee mu mokk allahu akbar te xoolal bëñ yi ci kanam ak yi ci ginnaaw nuróowuñ yii ñooy dagg yii ñooy yéey yaa ko fi def ku ko fi def yàlla loo ko fay waaw ba pare na nga ngeen yàlla defal lu ma dara suñu bëggee nekk fii di wax xéewal yi ñu yàlla defal duñ ci jóge wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha su ngeen doon wàññi xéewal yi leen yàlla defal yàlla mu ne du ngeen du pare billahi wallahi wa taala buñ jëloon nopp kese dinañ fi fanaan yeen lu fi defi junni at nopp kese li tax ngay dégg fan la yàlla jaar ak yow élément yi yàlla samp ci nopp li nekk ci biir ba muy dugg ci biir cerveau bi ngay dégg ah buñ fi jóge dafay laaj nag benn bis nga dem ci benn médecin boo xam ne nopp rek la jàng xoolal da ngay gis docteur boo xam ne jàngul lenn ci doomu aadama lu dul nopp nopp kese def na ci fukki at di ko jàng kooku addunaam yëpp nopp lay faj keneen ki moom bët rek la jàng kii bakkan kii gémmiñ kii der rek la jàng der der bi kese kii yax yi la jàng yax yi kii deret bi la jàng deret xoolal ñii ñëpp li ñu jàng benn bu ci nekk rek université la benn bu ci nekk nopp bi bët bi kon ki def lii nag moom ki def lii lépp moom nan la toll kon comme mooy kas kon foog ngi delloo si sunu xel sunu bopp yàlla nee na xéewal yi ma leen doon defal xéewal yi ma leen defal man yàlla bu ngeen ko doon wàññi laa tuxsuha bu géej nekkoon encre garab yi nekk ay big ay xalima ñu ciy cap di bind xéewal yi ñu yàlla defal yàlla mu ne maa nafidat kalimatullah baati yàlla yi du jeex mukk abadan kon doomu aadama rawatina ab jullit war na xam yàlla la yan xéewal la ko defal moom allahu subhanahu wa taala mbokk yi maa hiya ni'ma lan mooy xéewal maa hiya an ni'ma xéewal mooy lan bu ñu doon laaj xéewal lan la ñuy tont lan mooy xéewal ndax am na fi koy tont ci jumaa ji maa hiya an ni'ma lan mooy xéewal kan moo ma mën a tont ab sénégalais moom boo ko nee xéewal mu ne xaalis xaalis mooy xaalis ay 4-4 si gaan bi taay xéewal la am 4-4 gaan bi taay xéewal la am benn kër la am waa ji taay xéewal la am dañ ko may billet visa use ba Italie États-Unis France Angleterre ah Hollande non temps yi waa ji xéewal la am pour ñun d'accord loolu xéewal la de waaye des na maa hiya ni'ma lan mooy xéewal li tax ñun mënuñu jaamu yàlla mooy xéewal lañ xamul xéewal bu nu yàlla defal xamuñu toog bi nga toog rek xéewal la bu la yàlla defalul woon lii nga toog est-ce que di nga toog imaginel sa articulation yi bu dul woon lem di nga toog xam na ngay taxaw rek ah ndax kon doo sonn wallahi di nga sonn waaye xoolal yàlla ni mu defee sa articulation yi lépp di lem lan moo koy lem appareil bi koy lem fu mu nekk bouton bi yàlla di bës soo bëggee tourner bopp tourner soo bëggee gees mu gees soo bëggee xef mu xef boo bëggee wax gémmiñ gi ŋaang di ñepp làmmiñ bi yëngu nopp di dégg bët di xool di xef appareil yooyu di di manipuler yaram bi fu mu nekk bu doon ci oto la lépp loo bëgg a def am na benn bouton bu koy def wala ah wala waaw léegi nag yow soo bëggee xef ban bouton ngay bés pour nga xef soo bëggee jóg ban bouton ngay bés pour nga jóg taxaw soo bëggee dox ban bouton ngay bés pour tànk yi dem naan nii di dem ban bouton la fu mu nekk allah subhanahu wa taala mooy buur bi xereñ mooy hakim hakim mooy koo xam ne lu mu def rek soo ko xoolee doo ci gis loo corrigé koo koy hakim xoolal bët fi ko yàlla def kan moo koy xool daan ne bët warul woon nekk fii bismillah ubbi nañ bunt bi ku bëgg wax yëkkati sa loxo kan ci yéen moo d'accordul ñaari bëtam fi mu nekk non man sama bët yi vraiment yàlla def ma ko doon defal fii ci ginnaaw wala mu defal ma ko mu nekk benn bu ngande rek fii ci sama jëf yi kan mooy xool ñaari bët fi mu nekk mu ne warul nekk fi kan mooy xool ñaari nopp fi ko yàlla def fii mu ne waru fi nekk gémmiñ bi fi mu nekk mu ne waru fi nekk bakkan bi ni ko yàlla def fi mu ko def mu ne warul nekk fii kan kan ci ñun mbokk yi kon yii yëpp lii mooy xéewal nag lii lépp boo ko boolee jant bi sa xéewal la ci xéewal yi yàlla defalal la bokk jant bi jant bi dafa ñëw ci àddina pour liggéeyal doomu aadama huwa allazi saxara lakum ma fi l ardi huwa allazi xalaqa lakum ma fi l ardi jamian wa saxara lakum l bahra wal fulka maa leen tàggatal géej xoolal géej dafa ñëw pour liggéeyal doomu aadama jant bi ñëw liggéeyal doomu aadama bidéew yi di liggéeyal doomu aadama ngelaw li di liggéeyal lépp lu nekk aad àdduna pour kan la pour doomu aadama kon est-ce que doomu aadama war na fi am problème mais déedéet yàlla dafa defar àdduna doomu aadama yow di yàq àdduna bombe atomique kan moo ko liggéey ah bombe atomique yàlla moo ko wàcc doomu aadama moo ko liggéey doomu aadama dóor ko yat rek yat xëyul ci moom yat yat boo jëlee yat ne ko doomu aadama rël day faatu doomu aadama moom ne noonu loolu dafa tuuti xaaral ma dóor ko bombe atomique yàlla wàccewul ci adduna bi lu koy yàq adduna bi lépp lu fi yàlla wàcce daf koy defar doomu aadama moo fi ñëw créer luy yàq adduna moo tax yàlla mu ne ñu wala tufsidu fil ardi baada islaahiha bu leen yàq suuf ginnaaw man yàlla ba ma ko defaree mbokk yi xéewal yenn saa yi mu nekk nattu xéewal fa amma al insaan ida mabtalaahu rabbuhu fa akramahu wa naamahu niamaango yenn saa yi yàlla may la ngay tëb di bonde di cëppi-cëppi di génn dënn di jaay mana di gondi nit ñi di nganda ngandulu fekk yàlla daf la natt day xool ndax yow mii soo amul woon nan ngay mel bi nga amee nan ngay mel parce que bëri na tey kuy wax ci àdduna soo ñàkkee normal mais bis boo amee rek changé change bi ngay njëkk a changé mooy li ngay sol li ngay war fi nga dëkk da ngay changé ba changé portable bi nga yor da ngay changé ba changé ay àndandoo yenn saa yi sax nga gis ku changé jabar ci ñàkk ngor yenn saa yi sax nga gis ku changé bàyyi ndeyam ak baayam ñaata ci sénégalais tey ñoo dëkk ci banlieue bi judd fi màgg fi yar fi jànge fi seen ndey ak seen baay di daw di kër kër yi di togg sombi di naan ruy di fande ba ñoom ñu tekki ñu daw ba ginnaaw noor jahannama jënd foofu benn parcelle takk fa benn tubaab bu ñuul bu mel ne ñoom ut benn xaj dugal ko ci biir kër gi ba pare bind ci porte bi ici cinq maison nga xam ne sa papa sax bu la ñu buggee jot téléphone léegi dootu la jotati ñaata sénégalais tey ñoo dëkk ci benn appartement boo xam ne jabar ji doom benn doom bi jëkkër ji ñoom ñett rek ana sa papa moom sama papa man man ko bàyyi dëkk ba quoi par weekend laa fay dem quoi par une semaine laay koy nuyu ci quoi sa papa bu defoon noonu di nga jug moo tax doomu aadama dafa doy waar da ngay gis koo xam ne papaam moo tax mu tekki mu ñëw isolé papaam isolé yaayam ñaata tey ci doomu aadama ñoo def loolu ñu ngeen xam yéen ñu ngeen xam ñoo xam ne dëkkatuñu seeni ndey ak seeni baay bi ñu amee rek dañoo daw dëkki feneen dama naan kër gi dafa bëri bruit quoi salo yow kër gi bruit bi yaa ko fii ni ñaata at nga dëkk bruit ci kër gi xanaa tey nga gis bruit bi biir wi kër gi moo la indi moo tax ñu war a bàyyi xel suñu bopp loo am waroo fàtte sa ndey ak sa baay surtout nag mu nekk dénkaane bu la yàlla dëkk dénk dama ko wax foofu rek mais bëri na ci lépp xéewal yenn saa yi day nekk natt yàlla jox la ko xool nooy doxale fal la nga nekk président de la république nga defe ne yàlla daf la fal pour ngay ngand ngand lu fekk yàlla daf la natt lu nekk yàlla indil la ko nga defa ne noonu la fekk yàlla def la natt xéewal mbokk yi nattu la waaye ñàkk nattu la mbokk yi xéewal ñépp la ko yàlla defal ba ci yonent yi sax yàlla def leen defal xéewal al anbiya alayhim salaam ibrahim yàlla defal na ko xéewal ishaaq ayub daawud zakariya suleyman isa muhammad muusa yusuf yunus ñoom ñëpp yàlla defal na leen xéewal xeet yi aussi yàlla defal na leen xéewal xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla defal na leen xéewal kuntum xayra umma ngeen nekk ngeen gi xeet loolu du xéewal yéen yéen a gën ci xeet bi kon xéewal du alalu kese xéewal du xaalisu kese lépp loo ko konte rek xéewal la xoolal doomu aadama day am doom doom xéewal la wala du xéewal doom xéewal la wala du xéewal ñaata nit ñoo sëy ba dee amuñu xéewal amuñu doom yàlla may la ko bi la yàlla mayee doom nga teg sa doom ci kawlal bi dem daral jël doomu jàmbur ñëw tëral ko rendi ko wala loolu amul ñaata doomu jàmbur la ñuy rendi ci sunuy ngénte ci sunuy céet ci sunuy dëj ñaata doomi jàmbur nag boobu ñuy rendi amul papa ak yaay xar moomu ñuy rendi amul papa ak yaay kon mbokk yi yàlla day woowaa banu israil pour ñu gàttal mooy buñ fi buggee yendu ci xéewal kon dinañ tafsir ba weeru koor gi yëpp jeex ci benn baat bi rek la ñuy nekk muy xéewal xéewal dafa bëri mais doomu aadama yi ñoo xamul lan mooy xéewal banu israil yàlla woo gi mu leen woo naan leen uskuru fàttaliku leen ni'amati sama xéewal néew xéewal yoo xam ne yàlla wàcc na ko ci seeni baay ak ñoom bi ci njëkk yàlla musal na leen gis nga li ma leen doon wax sànq du xaalis kese mooy xéewal banu israil bokk na ci xéewal yi rëy yi leen yàlla defal mooy bi inqaazikum min algaraq yàlla musal na leen ci lab lab firawna dàq na leen ñu ñëw ba ci mer rouge ba ba yéenay wax ne bahrul qalzum mer rouge mu sës leen ci géej gi Moussa jël yat bi dóor ci géej gi géej gi xar ñaar banu Israël daal di jàll Moussa daal di dugg yàlla tëj géej gi daal di labal Mous daal di labal firawna Moussa jàll yàlla labal firawna yàlla nee na loolu xéewal la man yàlla maa leen ko defal loolu du xéewal nga am sa noon di xeex ak moom yàlla may la victoire daal di daaneel sa noon loolu xéewal la wala du xéewal waaye dulmi firawna ak tooñ bu leen firawna doon tooñ yusabbihuna abnaahum wa yastahiyuna nisaahum muy rendi góor ñi di bàyyi jigéen ñi loolu moo tax yenn borom xam-xam yi naan li tax jigéen ñi ëpp ci adduna bi mooy liñ doon rendi góor ñi namrud rey na góor yu bari firawna rey na góor yu bari waaye bokk na ci tamit guerre yi guerre yi ñan ñooy dee moo tax chaque jour góor ñi ñoo ci góor ñooy gën ëpp li dee moo tax jigéen ñooy ëpp chaque jour parce que góor ñi chaque jour ñooy dee bu benn xare amee ñan la ñuy yóbbu góor ñi ñan ñooy des ci kër yi est-ce que góor ñi dem ñëpp ay dellusiwaat buur yi ñuy tëj ci kaso yi di rey ñu ëpp ñan la xoolal rek firawna mu jàpp ay góor di rey bàyyi jigéen yi namrud tamit noonu la defoon yuzabbihuna abnaahum wa yastahyuna nisaakum yàlla mu ne wa fi zalikum balaaun min rabbikum azim loolu natt bu rëy la woon yàlla sauvé leen daal di rey buur boobu yéen góor ñi ngeen continuer dund loolu xéewal la wala du xéewal bokk na ci xéewal yi leen yàlla defal firawna di leen tooñ tooñ yu métti waaye wa tadlilil xamaam ñuy dox naaj bi tàng yàlla wàcce benn niir mu keral leen tàngooru jant bi du leen laal loolu xéewal la wala du xéewal bokk na ci xéewal yi leen yàlla defal yàlla wàcce na ci ñoom téere bu tudd tawraat ak injil bokk na ci xéewal yi leen yàlla defal yàlla yónni na ci ñoom ay yonent yu dul jeex bokk na ci xéewal yu leen yàlla defal suñu bëggoon lekk lekk bi aljanna lay jóge du ñu dugg waañ wa anzalna aleykum almanna wassalwa bokk na ci leen xéewal yéen yàlla defal ñu dox mar naan yàlla ne Moussa fadrib bi asaaka alxajara fan fajarat min husnata asrata aynan qad alima kullu unasin masrabahum kulu washrabu min rizqillah wala taasaw fi l ardi mufsidin ñu mar naan yàlla dóor jox Moussa benn yat ne ko dóoral ci xeer wi mu dóor ci xeer wi ndox génn yàlla mu ne naan leen lekk leen naan leen ndeysaan lekk leen naan leen loolu xéewal la wala du xéewal kon banu israil du banu israil kese de ak ñun ñii di dégg yàlla may nañu xéewal nañu sant xéewal yi wa amma bi ni'mati rabbik fa haddis yàlla dafa bëgg xéewal yi nga koy wax nga sant ko nañu bàyyi bu ñu xëyee amuñu cent franc bu ñu jëndee cigarette rek suñu nee ça va ñu ne sénégalaisement nañu bàyyi bu ñu xëyee amuñu 200 francs yu ñu demee Dakar rek ça va sénégalaisement nañu bàyyi bu ñu xëyee amuñu lu ñu ndëkkee bu ñu nee ça va ñu ne ça va pas pourtant ça va yow mi yeewu kay yaatane ki yeewul yow mi yeewu wér këng yaatane ki yeewu feebar wala kon kay alhamdulillah moo tax yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam su xëyoon bu ñu ko nee nu nga def mu ne alhamdulillah bi ni'mati tatimmu salihat bu amul dara suñ ko nee ça va mu ne alhamdulillah ala kulli haal ñaari day sant yàlla su amee day sant yàlla bu ñàkkee day sant yàlla noonu la jullit di mel waaye boo amee ñëpp xam ko soo ñàkkee goree di jël jaas xoolal agresseur ñi agressé ñiy sàcc ñiy njaaloo ñiy góor jigéen sant ñu yàlla olof yi nee nañ bu rëbi ñu tëjee nga naan petit su rëbi na ubbee nooy def te yow mi yàkkamti ba tax ngay njaaloo wala ba tax nga nekk góor jigéen wala ba tax ngay jaay sa bopp wala ba tax nga dem di liggéey lu xaraam pour nga am dara da ngaa yàkkamte rek boo muñoon mu ñëw ndax yàlla moo yor assurance bi wa ma min dabbatin fil ard illa ala allahi rizquha gaynde jaayul boppam mi ngi lekk yàpp gaynde gaynde bu jigéen bi jaayul boppam de te yàpp lay lekk golo bi jaayul boppam de te mi ngi lekk xar bi jaayul boppam de mi ngi lekk doomu aadama rek mooy jaay boppam mës ngeen gis xar bu romb fi sangu naan damay jaay sama bopp ah ginaar sax du jaay boppam doomu aadama rek mooy jaay boppam day san sangu ba set sol yu bon taxaw ci ab trottoir waaw ku la romb nga naan ko deux ans deux dents deux ans deux dents pomé na fere na suñu benn ustaas lañ ko waxoon mu dem conférence guddi dugg ci taxi taxi bi panne essence dugg ci benn essencerie di jël essence rek benn xale bu jigéen sëgg ci verre bi ne ko monsieur deux ans deux ans daal di génne ween yi ne ko pomee na fere na rek waa ji yuuxu subhanallah ndaw sa ndaw ndeysaan fala lool rek jigéenu jullit laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu meneen yàlla aar loolu du ko waral mooy xam ñàkk xam li la yàlla defal ñàkk xam sa bopp suru bi ñu tëjee nga nekk ci potin mii naan xam ngeen potin xam ngeen potin suru bi ñu tëjee nga naan potin suru bi na bi ujjee ubbee looy looy def ngay am gàcce ngay mu ngay muñ ngay muñ ñàkk warul tax doomu aadama dem jaay boppam banu israila ngi nii yàlla ne leen uskuru fàttaliku leen niamati samay xéewal allati xéewal yi nga xam ne an'amtu alaykum xéewal naa ko ci yéen niamatu zurriya ndeysaan niamatul mulk niamatul minna niamatul nasr gis nga ni xéewal dafa bëri façon xéewalu doom doom xéewal la xéewalu nguur nguur xéewal la xéewalu jàmm xéewalu ndimbal yépp ay xéewal la ndeysaan ni'matul hidaaya wala yàlla jubal la nga jub di jaamu yàlla toppoo kenn alquran ngay topp ak sunna ñooy sa guide loolu xéewal la ñaata doomu aadama tey ñoo sànk nekk ci làmb ji ñi nekk ci football bi ñi nekk ci musique bi ñi nekk ci sangara si ñi nekk ci boîte de nuit yi ñii di jaay seen bopp ñii futteeku yaramu neen nga fekk bëccëgu weeru koor ay doomu aadamaat taabale di naan di añ di naan sangara di naan ataaya di déglu seen musique yow nga jug nekk ci jàkka yàlla yor alquran toog di déglu tafsir loolu xéewal loolu xéewal loolu mooy ni'matul hidaaya neex du yow du yow yaa ko defal sa bopp de du yow yaa góorgóorlu de da ngeen yaakaar ne ñun ñi ñëw fii ñoo fi indi suñu bopp bu kenn ci ñun dof nag dafa ne yaa fi indi sa bopp yàlla moo la baaxee yàlla moo la seppi daal lay indi ci ñu baax ñi da ngaa bind lettre da ngaa woote téléphone da ngaa ñaan audience yàlla moo la baaxee ndeysaan yahdi man yasha wa yudillu man yasha te wa man yudillillah walan tajid lahu waliyan murshida bi nga jógee ne yàlla man dama bëgg baax yàlla daal lay orienté ne la ñu baax ñi de fële la ñuy nekk demal foofu gis nga yàlla automatiquement lay def sa xel da nga bëgg baax mu ne waaw mu ne demal fële fi la ñu gal baax ñu nekk fi mu nekk nii boo jógoon léegi pour bon yàlla lay dugal sa xel rek nga xam ñu bon ñi fi ñu nekk nga jubal doo ko laajte da nga ñëw rek wàcc daan ne tegale leen kees yi mu sut ma gars yi bismillah jël leen maa leen payé tey gis nga ñiy def lu bon yëpp dañuy dañuy dañuy tabe ñaanal benn cigarette nga xool gisal benn waay di tux nga ni ko grand danaa la non attends dindi nga rocc ne ko merci beaucoup ba pare mu ne non non non daal di dindi taalal nga taal commencé bu dee sàngara da ngay gis waa ji ñëw ne na ma sut na ma sut ñu tegale kees yi na gars yi bu kenn jënd tey na ñëpp naan gis nga ñiy def lu bon dañuy tabe ci lu bon li kon yow mi def lu baax nag lu la war ah nga tabe ci lu baax li nga tabe ci yonent bi nee na même boo yoroon tàndarma nga woor ngoon bay dog nga yor benn tàndarma nga séen sa mbokkum julit mu ne la wa walaw bi siqi tamra ittaqu naar walaw bi siqi tamra daggal tàndarma bi ci digg bi joxe ko benn waaye dafa feebar di waaja dee feebar bi métti mu nekk ci sukuraat ñu dékki-jékki dégg mu naan yaa layta kaana baida يا ليت كان جديدا يا ليت كان كثيرا ñett yu bokkul aka neexoon muy lu sori aka neexoon muy lu mat aka neexoon muy lu bees ñu ne waaw yow loolu mooy lan mu ne damaa musa saraxe benn mbub mu tilim bu ma amoon ma gis benn waay bu amul lu mu sol ma jox ko mbub mi fi ma tëdd nii léegi di waaj a dee yàlla won na ma ci biir aljanna benn magasin boo xamante ne ay yére kese la man maa ko moom yàlla loolu la ma fay mu ne aka neexoon mu bees ma joxe yére bu tilim ñu defal ma benn usine ci biir aljanna bu may defal ay yére te yére bu tilim laa joxe woon bu raab mu ne aka neexoon bu bees kon bu joxoon bu bees lu muy am ñu ne waaw dégg nañ nga naan aka neexoon muy lu mat mu ne benn daggitu mburu de laa joxe woon ma gis ci biir aljanna tey ñu defal ma benn bièche doore boo xam ne man kese la mu ne aga neexoon ma joxe kilo comme daggit la joxe ñu defal ko benn ñu ne waaw aga neexoon muy lu sori nag benn waaye moo réeroon di laajte yegsi ci man ma jóg ànd ak moom te kat ki mu doon laaj mooy ñaari kër yu sës yi ñaari kër yu sës comme ñaari kaw yi ni ñu sësee mu génn jàpp ci loxo waa ji ñëw ne ko ki ngay laaj diw mu ne amu ne kii yow lay laaj mu ne loolu nga doxoon ci aajo sa mbokk ba mu faju yàlla may na la ci benn kër firdaws mu ne aka neexoon muy lu sori kon gis ngeen xéewal yi ñu yàlla defal dox ci sa aajo mbokk ba mu faju xéewal la jox nit mu lekk imaam ali dégg ngeen mu wooree ba ngoon bay dog ñetti fan mu tegale dogul te ba muy jox ñooñu lan la wax innama nut'imukum li wajhillah laa nuridu minkum jazaan wala shukura lan la ko yàlla fay ah fa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira gis ngeen ko yàlla fay janna yére aljanna ba pare yàlla may ko ci biir aljanna muy sol suwa te lan la defoon woor ba ngoon rek gis ku jaam mu jox ko ndogu bi jirim ñëw mu jox ko ndogu bi kan moo des miskin ñëw mu jox ndox bi ba pare te bi mu koy jox da ko ne eh moo fi romb suba.
mbokk yi kon ndeke vérifié vérifié ndax courant la ndeke kon war nañu sant yàlla yéen waa banu israil fàttaliku leen xéewal yi leen yàlla defal yéen waa ndakaaru fàttaliku leen xéewal yi leen yàlla defal fàttaliku leen yàlla may leen la xéewal de yàlla may nañu xéewal mbokk yi dañ ko war a sant yàlla tabaraka wa taala yéen waa banu israil fàttaliku leen xéewal yi nga xam ne wàcce naa ko ci yéen defal naa leen allati yi nga xam ne an amtu xéewal naa ko aleykum ci yéen wa an nii man yàlla faddaltukum gënal naa leen alal aalamin ci seen nit jamono albashar alladina kaanu fi zamanihim mutlaqan jamono boobu doomu aadama yi doon dund ci kaw suuf yépp ku nekkul woon banu israil waa banu israil ñoo la gën waaw loolu du xéewal mbokk yi yàlla def la ngay ngay gën di xeet ñun loolu lañu yàlla defal pourtant instant bi mais yàlla ne ñi bokk ci xeetu muhammad ñooy ngën ji xeet ñi ànd ak muhammad ñooy ngën ji xeet kuntum xayra umma uxrijat linnas waaye kan ngeen di nekk ngeen di xeet taamuruna bil maaruf bu ngeen di diglu lu bon wa tanhawna anil munkar ngeen di tere lu bon di digle lu baax wa tuminuna billahi ngeen gëm yàlla ñun fan lañ toll ci loolu xéewal googu yàlla may kan moo proposé woon boppam daan ne yàlla boole ma ma ànd ak Muhammad kan yonent yi sax dañ doon lébét fekke jamono yonent yàlla Muhammad yonent yi ñun yàlla baaxe ñu fekke ñu ñu bokk ci umma muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax moom yonente bi mu ne kullu ummati yadxuluuna aljanna illa man aba sama xeet ñépp danañ dugg ajana ba mu def ku bañ sahaaba yi ne ko yonent nit nan lay bañee mu ne man ataani daxala aljanna wa man ataani faqad aba ku ma topp dugg aljanna ku ma bañ a topp yaa bañ a dugg aljanna ndeke nit dina bañ a dugg aljanna nan ngay bañee dugg àjjana mooy yaa bañ a topp yeneen bi topp ay rappeur topp ay check down topp ay simbkat topp ay nit ñu dévié la ci yoonu yàlla tabaraka wa taala dévié la ci yoonu yéen yàlla muhammad bàyyi loola julli bàyyi loola woor topp ay nit ñu ne dañ lay wan yàlla topp ay nit lu wuute laak yoonu yonent yàlla Muhammad ba pare nga jàpp ne yaa ngi ci jàmm billaahi wallahi wa taala bis boo deewee xam ne nga koo ci jàmm boo faatoo dugg biir suuf di nga mat sa ñaari loxo képp ku toppul yonent yàlla Muhammad boo duggee biir suuf mat sa ñaari loxo jàng ngeen ko ci alquran yawma ya'uddu zaalimu ala yadayhi bis bu nit di mat bis bu nit di mat ñaari loxoom lan la waajooju di récc lu muy wax yaa laytani laytani lam attaxis fulaanan xalila ay waay waay waay waay aka neexoon jaaruma ci yoonu diw aka neexoon jaaruma ci yoonu diw fan laa jaar ci yoonu yàlla ndeysaan laytani ittaxastu maa rasuli sabila ak a neexoon ma jaar ci yoonu yonent yàlla muhammad mbokk yi ku jaarul ci yoonu yonent yàlla muhammad di nga texee di àdduna texee di àllaaxira ku jaarul ci yoonu yonent bi di nga texee di àdduna texee di àllaaxira lu tax ndax yonent bi la yàlla assuré moom dong la yàlla jox kóolute moom dong la yàlla jox assurance ne ku ko topp jub wa in tutiuhu tahtadu yàlla nee na tabaraka wa taala su ngeen toppee yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam da ngeen di jub waaye moom la yàlla jiw ci dundam ne wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim yow dong yow muhammad yow yaay jubal nit ñi ci yoon wu jub bi kon jot na tey julli bi xam muhammad mbokk yi yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam fan la tàmbalee ak ñun bi nga juddoo kenn ci ñun juddoo ilimaan ñëw di ko tudd di ko ngénte ilimaan bi mu ñëw yëkkati ko lan la ilimaan doon def ci nopp yi ndax mun ngeen ma ko wax ma ni kenn ci ñun di ko ilimaan di tudd di ko ngénte ilimaan lu mu doon def ci nopp yi dara nodd bi muy nodd ci nopp yi bi mu waxee ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah dafa ne wa ashhadu anna abdallah njaay mooy papam lu mu wax wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wala li nga nekkee lii nga commencé dégg turu muhammad ashhadu anna muhammadan rasulullah ci sa ñaari nopp yépp nag ñu nodd ci biir liqaam ci biir ñaari lan lañ ci wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah waxuñu sa turu papa sa papa ngi nii moo la jub moo jënd kuy mi mi ngi nii ceeb baa ngi nii gaa yaa ngi préparé ngénte bi waaye kenn waxuñ sa turu papa parce que sa papa du dara du tus moo tax kenn du ci wax turam kenn waxu sa turu yaay kenn waxu sa turu sëriñ wa ashhadu anna xalif général huwa alladi tudd ko kenn waxul loolu parce que xalif général bi du tudd kan lañ wax Muhammad parce que moom mooy tudd yamul foofu de julli jot jàkk yi xale boobu ñu doon tudd léegi war na julli bi ñuy noon di ko woo ñëwal julli ci turu kan lañ ko woo bilaal bi bi mu ne ashadu an laa ilaha illa allah lu mu ci def ashadu anna muhammad rasulullah kooku wuy ñuy li xaam di julli turukan lañ wax ashadu an laa ilaha illa allah julli gi du mën a wér lu dul kooku ñu doon tudd woo ko ci julli gi li xaamal ko ci julli gi julleem du mën a wér lu dul ci ay taayaam mu ne ashadu an laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu lu ngay def allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad julli gi dooga yëg doyagul de waa jooju ndeysaan waa jooju mbokk yi ñu doon woo ci turu muhammad li xaamal ko ci turu muhammad muy taaya tudd turu muhammad léegi nag dund gi jeex na dugg na biir bàmmeel suul nañ ko ba nit ñi ñibbi yàlla yónni ko ñaari malaaka ñu indil ko jëm muhammad ñu ne ko maada kunta taqulu ala hada al abdu muhammada muhammad mi nga doon wax ñu laa wax ñu ne mu ngi ñu ne ko mi ngi nii loo doon wax ci moom kooku jar na xam wala jaru xam koo xamante ne lii yëpp jaar nga ak moom bi te boo duggee biir bàmmeel ñu laaj la mooy kan gars yi kooku jar na xam de billahi lazi la ilaha illa huwa ku ko xamul ba dugg biir bàmmeel di nga rëy ñun nag bokk nañ ci li ñu yàlla nattoo ñun waa réew mi li ñu xam ci muhammad mooy abdallah mo abdallah mooy baayam amina mooy yaayam makka la juddoo madina la faatoo loxo ci kaw bàkkaar ci suuf ñu ne iski iski iski loolu waa jardin lañ koy jàngal waa jardin d'enfant xale yooyu am ñaari at ñetti at la ñuy jàngal loolu pour ñu xam seen yeneen waaye yow mi nekk baayam am kat quarante ans yow war nga dépassé foofu yow xam nga danañ soxla ci yow nga xam yonent yàlla muhammad nan la doon dundee nga dundee noonu saxaaba yi dañ doon roy yonent bi ci lépp bu génn dund na yonent bi daan dund yéen a ngi fàttali ba ñuy wëlbati xibla bi yonent bi dafa rukkoo woon tourné saxaaba yëpp rukkoo tourné mu pare ne leen eh lu tax ngeen tourné gaa yi ne ko yaa tourné ñu tourné bi ñuy julli simmi daal lii gaa yi simmi daal mu ne sax ngeen simmi gaa yi ne ko yaa simmi ñu simmi imaam ali mos na mar naan ne may la ma naan ñu indil ko ndox mu ne nii benn ñaar ñett daal di muuñ ñu ne ko ah looy muuñ mu ne nii laa gise woon yonent bi di naan moo tax may naanee noonu ñoom dañ ko doon roy ci seen lépp ndax dañoo xamoon ne dañ leen di laaj kii mooy kan ki nga xam ne ci sa dund bi nga nekkee lii xamagoo dara ñu commencé di la wax turam ci julli ci lépp ñu la koy wax ci lépp ba nga nar a dee ñu nar laa laaj kii mooy kan te xamoo ko ay simbkat sax nga gën a xam ay mbër ay fas ay fasu PMI am na ñoo xam ne fasu PMI lañ gën a xam ak Muhammad da nga gis benn waaye boo xamante ne day topp fas bi France ba Londres ba États-Unis d'Amérique fas bi xam na juróom-ñaari maamu fas bi waaye xamul Muhammad mooy kan sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi wa anni man yàlla faddaltukum gënal naa leen alal aalamin ci seen niti jamono kon nag wattaqu na ngeen moytu yéen waa banu israil yawman bis boo xam ne laa tajzi du doy du jëriñ laa taqdi wala tugni du jëriñ nafsun bakkan an nafsin ci beneen bakkan moroomam lii yàlla rek moo ko ñemee waxam bu doon lii du alxuraan soo ko waxee ci Sénégal ñu ne kii day tooñ kii dafa bëgg histoire kii dafa bëgg problème kii leen ñu lakk këram kii leen ñu rey ko kii leen ñu taal jàkk ji muy waxee waaye yàlla moo ko wax mu ngi nii yàlla nee na na ngeen moytandiku bis boo xam ne su ñëwee benn bakkan du jëriñ beneen bakkan moroomam dara te lii du benn aaya ci alxuraana yawma laa tamliku nafsun ah te yéen a ko yeggali xanaa man maa ko wax kon yàlla nee na bis boo xam ne bakkan du jëriñ beneen bakkan dara yawmal qiyaam la xam nga ñun Sénégal bokk na ci li tax ñu tardé li tax nit ñi mel nii di fo dañ leen assurer aljanna waaw loolu la de billahi wallahi wa taala bokk na ci li tax sénégalais du jaamu yàlla mooy dañ koo yombalal aljanna dañ koo yombalal aljanna ba mu yomb te musiba naaru laay la mbokk yi aljanna ku la ko yombalal moo la alak aljanna ku la ko yombalal rek alak na la te ñun wallahi dañ ñoo yombalal aljanna li mooy suñu problème nga gis ay nit yoo xam ne du ñu jaamu yàlla bu te nee nañ leen yéen yow da ngay dugg àjjana yow moom macha allah da ngay dugg àjjana te xool leen Umar Aboubacar Ousmane Ali ñett ñi laay ñeenti ñi laay yem dañ leen waxoon yéen di ngeen dugg àjjana ba pare ñu jaamu yàlla yonent bi da nga xool Aboubacar ne ko Aboubacar mu ne ko labbayka mu ne ko anta min ahli janna yow da ngay dugg àjjana wala jàngule loolu jàngale loolu man maa ko wax wala jàngeen ko asara mubasirina bil janna kuy fee kuy fee do abubakar waaw yoon ñoo ko abubakar mu ne ko waaw mu ne ko yow damay dugg àjjana abubakar ne na sama tànk droite bu duggee boo ci duggagul wóoloogu ma yeneen bi nee na bu ñu jëloon imaanu ñëpp jullit yëpp bu ñu jëloon seen imaan teg ci imaanu abubakar ci place ñu jël imaanu ñeneen ñu teg ci place mu ne Aboubacar mooy dëpp iman moo tax yonent bi doon ak si biir ñu ne ko damay dugg àjjana mu ne woon wóoloogu ma de laa ilaha illa allah jëlal Umar law kaana nabiyun baadi la kaana Umar bu doon yonent day ñëw ginnaaw yonent bi Umar lay ñëw Omar ci iman bu jaaree ci mbedd seytaane di ñëw seytaane seen Umar seytaane day jaar beneen mbedd day tourné ndax seytaane dafa ragal Umar ñu tey naa leen barki démb ba Omar bi moo ci ndaw si bi Omar ne seytaane bi mu duggee ci ci jigéen ñu indil ko Omar Omar mu ne bàyyi leen ko ñu bàyyi ndaw si Omar ne aoudu billahi min alshaytani irrajim bismillahi arrahmani irrahim xaaf rek seytaane bi ne put mel ni benn muus bi ñu rek daw Omar génn àdduna seytaane dellu si waat dugg ci ndaw si ay at yu yàgg benn waaye fekke woon na ko ñu ne ko ndeysaan ndaw soosu Omar moccoon day seytaane bi dafa dellu si waat waa ji nag indi leen xam na mokkal naa li Omar mokkaloon mën naa li Omar mënoon ñëw ah gën a neex sax Omar baat faaf seytaane na ko doo Omar yow doo Omar alxuraan bi nga jàng de même alxuraan la même saar waaye nag sëñ bi mu ne mu ne ko doo Omar waaye toppal fële doo Omar yéen du ma fenn gis ngeen Omar yonent bi ne nag Omar da ngay dugg aljanna mu ne bu ma déggoon benn baat di wàcc kaw asmaan ñu ne yéen ñëpp da ngeen di dugg aljanna ba mu des kenn mu ne damay ragal ndax duma kooku sénégalais ndeysaan ñu ne ko yow da ngay dugg aljanna mu dem tëdd di nelaw du ma julli du ma woor bu ma deewee dugg aljanna alayhi salaam dañ koy woy dañ koy woy ci ay rajo da ngay dégg mu ne moom moom julli yóbbul kenn nit aljanna koor yóbbu kenn àjjana waaw ñun suñu àndal ku mu àndal lu la neex laaj allahu akbar ci mu àndal mu àndal lu la neex laaj gaa yi sax ñu koy inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ah ñun suñ jëm yeneen bi ay nit ànd ak moom ànd ak moom di ko ñaan aljanna munu leen koo may doomu aadama bu dul yonent bëgg a may aljanna doomu aadama bu dul yonent yàlla yónniwu ko mu bëgg a as waxuma mu assureel boppam de mais mu assureel ay nit ba ngeen léegi ci rajo yi benn xalif général bu mag ci xalifa yi mu ne ñun waxu àdduna rek la ñuy wax su ngeen gisee gars yi di ñëw fi di wax ci wàllu àdduna ci place yi liggéeyukaay yi sànnikaay yi visa yi passeport yi lu tax ñu ñuy koy laaj ñun àdduna rek la ñuy laaj ndax àllaaxira moom dafa am ku fa nekk jiw mu ngi foofu rek la na leen moo tax fii ci àdduna ñun am gars yi àdduna rek seen àdduna seen àdduna rek moo am problème mais àllaaxira rek la nañ ko ba pare dañuy ñëw rek dugg allahu akbar àllaaxira fan la nekk ñii rek la àllaaxira àllaaxira fan la nekk ban continent la ku ñu ku ñu ku ñu yàq sa àdduna ba ñu ne la bul jaamu yàlla ba nga bañ a jaamu yàlla xam ngeen alxuraan lu mu wax yàlla daf ñu filmé benn film écran géant yàlla dafa daf ñu bëgg de billaay yàlla daf ñoo bëgg yàlla dafa film benn film ci film yowmal xiyaam yi mu daal ñu koy envoyé daal ñu koy defal ci benn télé écran géant mu ne xool leen seetaan leen balaa gars yi di leen nax bi ñu taalee bouton bi écran bi commencé tàkk ñu gis istabarra alladina tubiu min alladina tabaru yàlla nee na bis bi nga xam ne kiñ doon topp ak ki doon toppaat dañuy poñante di xuloo di xeex di jóorante ay yam istabarra alladina tubiu min alladina tabaru kiñ doon topp moo ñëw ci kim doon topp daal di koy poñe ñaari loxo yemul ci poñe ko ñaari loxo de waaye dafa jël ñaar tànk yi képp ko encore ci ndigg li jël gémmiñ gi màtt ci nopp yi ne ko yow laa doon topp yow ah da ngaa fay sama lépp yow laa ko doon def maa doon bay tool yi maa doon raxas oto yi sama alal lépp daaw ma ko jox sax sama papa ak sama yaay yow rek laa ko doon def xam ngeen lu waral tey yàlla ne waa ji def loolu waraul azab dañoo gis mbugal nii dañoo ubbi buntu safara wa burrizatil jahima liman yara dañoo ubbi buntu safara safara di sàkk di génn ay étincelle yoo xam ne innaha tarmi bi sararin kalqas ka annahu jimalatun si gaay daa di jii xam ne fii tey ñi doon toppaate munuñ ci tus ñi doon topp ndeysaan xamatuñ ñi dem ñu daan dew poñ a gaay waraul azab yàlla mu ne wa taqattaat bihimul asbaab li leen lekk li leen li leen li leen liyewoon li leen taxoon ñu jàppante yàlla nee na loolu dagg na lan moo taxoon ñu jàppante indi leen rek may lekk indi leen may lekk waaw na ñëpp indi billaahi wallahi taalaay mas naa tukki dëkk bu tudd njongoloor dama fanaan dem suñ kabaske ba ci suba ci daawa liggéey yi lislaam dëkk boobu daawuñu julli jumaa ci kattanu yàlla ak ay mën-mënam man ak ñi ma doon àndal ñoo tax ñooñu di julli jumaa xam ngeen ñooñu lan lañ doon layee ne ñun duñ julli jumaa jumaa ji pareegul jumaa ji dañ ko teg ay biir ñu ne pareegul julli julli comme ñu pare ci voyage yi ñu fa def yu baree baree baree bari alhamdulilah ñu commencé julli ak jour bi ma leen nee ajjuma bii di ñëw bu ngeen julliwul yéen ñëpp ay yéeféer ngeen ajjuma boobu lañ julli bis boobu ci benn dëkk biir dëkk boobu ñu fanaan ci dëkk bi amuñu woon oto bu ñu indi bu ñu indiwaat nit ñi guddi ajjuma la woon ñu jàpp benn rajo toog ci tere trottoiru tali bi di xaar oto ma dégg ci benn rajo benn sëriñ naan ñu indi daayira yi ñu indi seen enveloppe nañ dugg seen tur ku indiwul bu kenn wax sa tur billahi wallahi wallahi sëriñ yi sa enveloppe nañ dugg sa tur ci da ci rajo daayira bu ñu mbir bu kenn wax ci fii kon lan moo lënkale nit ñi sëriñ si ak taalibe yi lan moo leen lënkale jox leen ñu ran ñu lekk jox leen ñu naan indi leen affaire yi te bu leen jaamu yàlla yow man xiyaam ñu rek la yëpp loolu ay naxaata la ku jaamu yàlla perte bi ku fi dégg ku fi dégg ne assuré naa la àjjana ba nga bañ a woor li ma lay ñaan de mooy bul dee bis boo dee ba ñu dugal la ci armel bi ñu ñu ñibbi di nga bokk ci ñooñu naan yaa laytani kuntu turaaba yonent yàlla muhammad ndax am na ku ko gën a màgg dégguma tontu bi loolu loolu da ngeen di wax ci kaw yonent yàlla muhammad am na ku ko gën a màgg loolu yi ngeen war a wax ci maa wiri yonent yàlla muhammad ndax am na ku gën a màgg nit daa dee yonent bi sang ko sang ko xam ngeen lan la ko sàngee maantoom la dem jël sang waa ji dem ci armeel yi ñu gas ba mu xóot mu dugg ci biir ñu jox leen ma ko ñu jox ko mu dugal ko mu suul bëgg a ñaan yàlla mu ne ko amul njëriñ de kii mi ngi safara yonent bi bëgg a ñaan yàlla mu ne ko boo ñaanoon juróom-ñaar fukki yoon nit du ma ko baal ndax am na ñu gën a màgg Muhammad Muhammad def loolu yàlla mu ne ko amul njëriñ ñun ñu bëgg keneen keneen ñëw rek mais ñun ñëpp àjjana lañu jëm bal sax dañ naan dëkk bi ku ci suuf àjjana la jëm ah xanaa nañu war a wax ku baax boobu wala ni ku ñu suuf kii rek àjjana te màkk ñu suul fa ay nit ñu ngi safara tabbat yadaa maa agna sa yasla naaran mooy lan naaran lu muy nekk jara safara abu lahab fu mu def suñ ko suul du mat boo demee Arabie Saoudite këram dañ def duus duus mooy këram ba ajiyee duus yi nekk ci kaaba yi mooy këram nga gis mu jàkkaarloo kër yonent bi ñu def ko benn immeuble benn immeuble def benn immeuble deux premier ak deuxième ah étage ak terrasse ñu bind ci baytul lazi wulida fiihi rasul kër gi la yonent bi liggéey ci porte bi laa taxaw ma seen ci kër gi de gars yi dañaa bind bind bind bind fu ñoo rek bind ci tur wala rek ndax ci ñu bind ma xool nii rek boo rek ma gis benn waaye daal di bind turam daal ci bind Louga da ngay ay kii de Sénégal la ngal bu politique tey marché mu bind ci Louga ma ne wow ci dëgg sama mbokk yi nag boo ñëwee génn sa bit ñu ne la laa taktub yaa cheikh ma haza haza laa yadur wala yanfa ndeysa du jëriñ du lor haza hajar hajar li xeer la sénégalais moom xamul tawhid quoi tawhid tawhid wéetal yàlla sénégalais xamul loolu moom bu dee xeer la rek foog mu màtt xeer bi foog mu mar ko foog mu diw ko rek raay billaahi wallaahi taala da ngay gis sëriñ bi dugg ci oto sa gars yi naan di oto bi di raay oto bi di diw oto oto oto oto weñ weñ oto oto oto bi lu ñu di raay wala nga gis mu toog fenn ko gars yi di raay di raay basa ci yaada bi ci yaada oto lu ñu di raay tabax tabax raay lii luñ ci raay lii karo la moo tax bu dee gars yi dañu arabi saudi bëgg a raay gars yi ne leen yaa fi yaa turaab yaa fi fayda dama bëgg dama bëgg njëriñ udu allah ñaanal yàlla ñaanal yàlla yàlla la bëgg barke da ngay ñaan yàlla waaye ngay raay ngay raay karo karo karo karo bi siin lañ ko defaree siin boo ko raay ba njëriñ la am xanaa ci yàlla siin waa yi ngay am Omar ibnu Xattaab dafa ñëw ba ci xajaratul aswad xeer bu ñuul mu ne ko alimtu annaka xajar xam naa ne yow xeer la laa ta dul wala tanfa doo jëriña doo la rek wallahi law lam ara Mustafa sallallahu alayhi wa sallam yaqbilu ko ma qabaltuka su ma gisul woon Muhammad di la fóon du ma la fóon dul waaye comme yoon suñ fóon na la dinaa la fóon rek dañ daal koy fóon xam ngeen lu tax xeer wa boo ko gisul aljanna la jóge bokk ci amul leneen nag loo war a raay amul leneen amul leneen amul leneen loo war a raay amul leneen loo war a muur da ngay gis gars yi bu ñu jullee ba pare sax nga gis ku naan nii di diw fi mu doon jóg di diw si jaade li si jaade la moket moket xanaa moket bi ngay gaamu wala da nga wis wala nga kuy bind nii sëlmal su sëlmalee da ngay gis ay film quoi boo jàkkaarloo ñu nga gis film ci naan nii inna atayna
fasal lil inna saadia wal abtar gis ñu ne ñu naan nii def benn sarkal jële ko ci kanam daal di ko yëngu ci ginnaaw xamu ne ñooñu nag moom xamu naan leen nii nga gis keneen di dessiné vidéo ba pare di fóot naan nii sa yaram day daw laa ilaha illallah te ñooñu boo leen waxoon yéen jëlee lii kenn du leen ne ci Muhammad laa ko gisee sallallahu alayhi wa sallam yonte bi joxewul lool yonte ne boo sëlmalee waxal astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ñaata yoon اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والكرام اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك nga jàng ayatul kursi wala du loolu la ñu jàng jërëjëf pour ñun pour ñu so pour ñu noppalu lii nii sëlmale yonent bi wax na nga wax ni nii léegi nag kii fóon da ngeen gis fii fóon kii dessine vidéo léegi ko gis fii li dangereux mooy saa yu ñu la joxee lenn bàyyiloo nañ la li yonent bi def ki la ko jox ak li nga ki nga bàyyi mbiram ñoom ñaar ku gën a foor ki la jox ñaan bi yii ñaan bi sëñ bi noppalul munoo fexe ba ma bàyyi ko ndax sama kilifa ma sa kilifa ak yonent bi ku gën a nekk kilifa waaw ku gën a màgg ba pare léegi nga bëgg a yow tuutal yonent bi jël kee te yonent bi li tax bosam am assurance moom la yàlla yónni Muhammadu ah wax na Muhammadu sa kilif Muhammad lu ci tegu rasulallah yasin wal qur'anil hakim innaka inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadira gis nga yàlla nee na Muhammad laa yónni yónni wu ma keneen yow sa kilifa nga ku ko yónni ba muy joxe ay ñaan ak ay wird ku ko yónni waxal waxal na ku ko yónni waxal rek dimbali ñu rek bul mer nag waxal ku ko yónni waaw léegi nga bëgg a bàyyi ki ñu yónni moom ki ñu yónni tey wallahi Ablaye Wade bu yónni woon kenn mu ñëw taxaw ne la Ablaye Wade moom mu yónni beneen waaye ñëw ne ma man de saas moomu yónni danga naan kii Ablaye Wade yónni loolu loolu Ablaye Wade wax
dañ wax dëgg yéen a ngi di toog su benn waaye ne woon tëll léegi ñëw sol tout noir wàcc benn 4-4 yor sac diplomate eh le président moom a yónni ci yow quoi bee waaye ne oustaz moom ne daa oustaz xaw Eh, xaar.
sëñ kaay yow kee oustaz yi nga koy yóbbu keneen nit boo koy yóbbu ci buntu kër gi nga koy bàyyi mu taxaw léegi nag yonent bi yàlla yónni ci yow
ko doya di di jël keneen lim la jox ci bàyyi yeneen indi moo tax yowmal xiyam di nga màtt sa ñaari loxo ne su ma xamoon du ma topp diw te lii may wax ni alxuraan la te yonent bi kenn du ko jiitu yaa ayyuha alladina amanu
laa tuqaddimu bi mu bàyyi bayna yaday illahi wa rasul wattaqu llah inna allaha samiun alim ba loolu du alxuraan yàlla mu ne bu leen jiitu yàlla bu leen jiitu yonent bi nekk leen ci seen ginnaaw laa tuqaddimu la wax baat boobu la jiital bu leen jiitu kon nag mbokk jullit yi nañu ragal nañu moytandiku wattaqu moytu leen yawman bis boo xam ne laa tajzi du doy du jëriñ nafsun bakkan an nafsin beneen bakkan say an tus baatu say li muy tekki mooy tus am ngeen tus tus mooy lan ci arab ci wolof tus mooy dara xanaa nga yaakaar ne sax mën na mën na dara yàlla mu ne dara loo yaakaar ne kii mënal la ko mënalu la dara ay ni mu bëree ci alxuraan mais doomu aadama yi dégg ñu ko ndeysaan yàlla wax na ci quran yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa saahibatihi wa banihi ñu ne yàlla lu tax mu ne li kulli imri'in minhum yawma idin sha'anun yàlla nee na yow ma bis boo xam ne ya firru dana daw almar'u nit min axihi ci mbokkam wa ummihi day daw yaayam wa abihi day daw baayam wa saahibatihi day daw jabaram wa axiihi day daw mbokkam ñu ne yàlla lu tax ñuy daw mu ne li kulli mri'in ñeel na kenn ku nekk ci ñoom yow ma isin bis boobu sha'anun mbir yughnihi bi mu tal kenn ku nekk sa problème nga tal kenn ku nekk sa problème moo tax koo gis mu daw kuy daw baayam di daw ndeyam di daw jabaram di daw ay doomam dina recevoir ay taalibeem ah kër gi de ñi ñen ñooy tëdd ci lal yu nooy doom yeeg jabar ji ñan ñooy reere yàpp bi kaat kaat yi ñan ñu ciy dugg fi ñee di lekkeek fi ñee di lekkee du benn te ñee nañ ñii la ñuy dugal aljanna te ñoo ñooy daw kon ñeneen ñi nañ bàyyi xel na dañ leen di nax tool yi buñ koy bay doom yi duñ ci bokk jabar yi duñ ci bokk jarbaat yi duñ ci bokk ñan ñoo ciy bokk ñan ñooy bay tool yi ñooñu nag nga xam ne ñoom du ñu bay ñoom alxuraan al al- alxuraan nee na ëllëg àllaaxira buñ la gisee dañuy daw kon ñii ñoom seen mbir lan lañ ko war a gisee wallahi alxuraan mooy wax ak ñu bu ñu gëmoon alxuraan ñun ñëpp kenn duñu nax gis nga bokk na ci li tax alxuraan di am garaaw mooy boo gëmee alxuraan dootoo nekk al toppe doo topp France doo topp Angleterre doo topp Amérique doo topp sëriñ li ma namm ci sëriñ nag mooy sëriñ bu dul wane dëgg laa ci namm waaye am na sëriñ yu baax yu lay jàngal woon la yàlla ne la demal nga jaamu ji yàlla wax la dëgg waaw waxuma ñooñu de ñooñu sax ñooy sëriñ ñeneen ñi këriñ lañ këriñ sëriñ ak këriñ du benn waaw këriñ ñi ñoom ñoo lay liggéeyloo ba nga dee boo dee dem safara xam ngeen këriñ dafay lakk bu lakkee après nu muy mel moo nga ñooñu ñooy këriñ yi këriñ lu tax mu ne këriñ dafa lakk dañ koo lakk waaw kon nañ leen delloo suñu xel yàlla nee na yowmal xiyaam benn bakkan du fa jëriñ beneen bakkan léegi wax ji la ñuy gëm wala waxu nit la ñuy gëm ah waaw mu ngoog léegi nag nga gis ndeysaan kenn dee gars yi daal di ko indi eh, di yuux waa ba yegg si rek ñu gas ba mu xóot nga gis benn ku ñeme yàlla dugg ci biir daal di bind bind bind te kenn taxaw fee jàng kenn taxaw fee yuux eh, ñu dugal da nga gis kenn ku ñeme wallahi kii ku gëmul ne mi nga aljanna yow yëféer nga kii dem na aljanna loolu ay wax nga dara demul fenn bu ñu waxee léegi fekk malaaka yi seene ko di ko ndulli bol de kan la demul waa ji ñu naan dem na àjjana lu mu doon liggéey ba dem àjjana lan lan la doon liggéey artiste la woon da doon way moo doon jaxase góor ñi ak jigéen ñi ci soirée yi jigéen ñi di njaaloo di naan sàngara mu dee ñu dem suul ko ñu ne dem na aljanna nit ñi di jooy ñu jàpp bàmmeelam tabax ko orne ko nit ñi di ko ziyaare ñu ne mu ngi aljanna waaw keneen ki moom ci kaw podium la nekk di yuuxu daal di dee ñu jël ñu ne dem na aljanna Sénégal Sénégal aljanna yomb na de da ngeen yaakaar ne aljanna jéggi tali la nekk ba ku jóg dugg ci France ngi nii rek ku bëgg a dem léegi da nga wax lu set waxuma la ak aljanna France ngi nii dem leen yéen a ngi toog jóg leen dem France jóg leen ngeen dogu ji fa waaw mu wax ngeen jógul de seen aljanna yàlla li mu wax ci alquran xanaa déggu leen ko inna allaha ashtara min almuminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul inna allaha yàlla ashtara day jaay yàlla nee na damay jaay yàlla nee na damay jënd lan laay jënd minal muminina ci way gëm yàlla yi anfusahum seen bakkan wa amwaalahum ak seen alal aljanna ku ko bëgg a jox ku ko bëgg a dugg da ngay joxe sa alal joxe sa bopp comme ni ñoom Aboubacar def joxe seen bopp joxe seen alal sahaaba yi dañoo joxe joxe ba joxe seeni rongoñ rongoñ ñenn ñi dañoo dox ba seeni deri tànk yi teggeeku wéy yi deñ ñu dox ba karamp ñu dox ba amatuñu lu ñu lekk amatuñu lu ñu naan ñu dox ba wër asa atlantique bi ne wallahi bu ñu xamoon ginnaaw géej gi ay nit a ngi fa dinañ ko traversé tas l'islam benn jigéen ndeysaan dañuy laaj ci yoonu yàlla di joxe di joxe moom amul lu mu joxe mu daal di létt kawar gi kawar gi dafa guddoon mu létt kawar gi létt ko benn létt deux mètres létt deux mètres daal di dagg daal di jàpp ci cat bi fi sës ci bopp bi mu daal di koy dagg ak paak daal di jël benn diw def ko ci kawar gi ba mu nekk benn buum mu lem ko ba mu rafet daal di koy ëmb ci kaalaam mu ñëw fëgg amirul muminin guddi këng këng këng këng mu ne kokkan la mu ne ko benn jigéen jaamu yàlla mu ne ko jigéen heure bii subhanallah dama nga ñibbi ba fajar mu ne ko mukk ñibbi wu ma ubil yàllaa tax ñu teg la fi jógal nga recevoir jaamu yàlla yi bu dee gëm nga yàlla amir daal di ubbi mu ne ko lan la ba jàmm la mu ne ko sama kawar gi laa bëgg bu ñu xëti xëyee bët set fas yi bu ñuy jihaad yi ci yoonu yàlla nga jox ko kenn mu ngalaabe ko fas bi mu xeex ci yoonu yàlla man lii laa am loolu laay joxe man lii laa am lii laay joxe borom bi tabaraka wa taala mu ne wattaqu na ngeen mooy tandiku yawman bis boo xam ne laa tajzi du jëriñ nafsun bakkan an nafsin beneen bakkan shay'an dara na ngeen mooy tandiku bis boobu mu ne wala yuqbalu duñu nangu ndeysaan wala yuqbalu duñu nangu gis ngeen mu ne aaya bi yàlla woowaa banu israil nee na aaya bi bu ngeen ko jàngee di ngeen fekk yàlla tabaraka wa taala li muy wax ci doomu aadama yi tey mu ne mooy li waykat bi wax laqad asma'ata law naadayta hayyan lakin la hayata liman tunaadi laqad asma'ta law naadayta hayyan walakin la hayata liman tunaadi mu ne ndeysaan aka neexoon ngay woo ko am ay nopp du dégg waaye ndeysaan nit ñi dañoo am ay nopp mais duñu dégg la hayata liman tunaadi est-ce que kuy nelaw mun naa yeeku dee kuy nelaw dañoo laaj Ibrahim bun Adham ñu ne ko démb borom xam-xam yi dañ doon wax rek nit ñi dem jëfe ji tey nag borom xam-xam yi dañuy wax ba dee nit ñi ne këcc këccaaral mu ne ndax xol yi moo dee ci fukki mbir mu ne démb borom xam-xam yi dañoo yeewu woon di yeete ku yeewu mën ngaa yeeku nelaw mu ne tey nag borom xam-xam yi dañuy nelaw ñi ñuy waxal dee te xam ngeen ne kuy nelaw mënul yeeku dee moo tax waa ji mu ne la xayaata liman tunaadi yow mi taxaw samp say opaleur di yuuxu di woo waa ji ki ngay woo daa dee kuy wooku dee ini lazina tad'una min dunillah amwaatun gayru ahya te wa ma yashuruna ayaana yub'asun ñii ngeen di woo wala ngeen leen di ñaan taxaw ci bàmmeel ndeysaan naan ko yaa cheikh yaa cheikh alxuraan nee na la cheikh dafa dee yaa diw yaa muhammad yaa abubakar dafa dee ci ngay woo déggu la amwaatun gayra ahya wa ma yashuruna ayaana yubasun kii sax xamul kañ la ñuy dégg ki ngay woo xamul kañ la ñuy dégg ku dee ku dee mënu dara ngay dégg ñu ne diw lim doon mën bi muy tund bi mu deewee tamit mën na ko ko waaw ndoo ndewa wuuri nde ha joni ndewa maayi nde omo waawi ɗum wona goonga somo waawi ɗum yo jibin mënutu ko lim mënoon bi muy dund tey jii fii mu dee nii tey la ko gën a mën du dëgg mënutu ko ku dee mënul dara lu tax bi mu dee ñu sang ko walla bi muy dund ku doon ku ko doon sang danaan ayda ana saabu bi mu ne mu ngi nii ana njàmbe mu ne dogalal ngeen ma ndox mu ne waaw waaw mu ñëw sang boppam ba set fomp diw ba xeeñ tey dañ koo sang ñu ne li mu doon mën mun na ko dañ ñuy nax wala ku dee de mooy sang boppam ku dee dañ koy sang wala dañ day day sang boppam beneen mooy après bi nga dundee sangu ba pare ba diw ba naaj daf lépp ku la doon solal kenn ci ñun ñaanul yàlla sang ba pare ñu sang la di la solal yére kenn ci ñun ñaanu ko kan ma ko ñaan yàlla bi lay dëgg loxo ñu lay sang di la solal yére di firi sa loxo góor ak jigéen kenn ci ñun ñaanu ko yàlla saa yoo gisee sa jabar ji mu ne ah man kay maa koy sang wala jëkkër ji ne maa koy sang day sang dama mus a def rajo télévision RDV benn benn programme benn jigéen daan may woo téléphone oustaz na nga def ma ne ko naa ngi mu ne dama laa bëgg ngir yàlla ma ne ko yal na la yàlla bëgg mu ne dama bëgg xaritoog yow ngir yàlla sama numéro ngi noonu jël ko nga enregistré ko ñuy woowan bis bu nekk mu woo ma téléphone mu nga def ma ne maa ngi ci yàlla bis bu nekk mu woo ma téléphone bis bu nekk mu woo ma téléphone benn jour ma ne koy mu ne ma yow doo ma seet ma ne ko ah yow nag sax yow doo ma seet mu ne ma gisoo ma moo tax nga naan naa la seet boo ma gisoon doo ma ne naa la seet ma ne ko mbaa jàmm la mu ne ma dañ maa gisul rek ma ne ko insha allah dinaa la ziar ma jël oto su ma tegtal ma wàcc jaar ci mbedd yi ba egg ci buntu kër gi sone benn xale bu jigéen ñëw ubbi ma ne ko ana diw mu ne ma mun ci nii ma ñëw toog ci saal bi ñu dem woo ko ma toog cinq minutes ma gis ni ku ñuy puus ci puus puus bi ñëw waxuma la ñaari loxo waxuma la ñaari tànk waaye ñaari loxo yi sax di yëngu nuyente nuyente nuyente ma ne ko maa ngi jéggalu de ma ne jéggalu ma nga def ma ne ko maa ngi toog ma ne ma gis nga ni ma ngay def ma ne ko waaw ma ne ko lii lan moo la def nii mu ne ma dama accident parce que bi ma nekkoon dafa tëj yëpp day woon def ma ñaari tànk yi ñoo yàqu ak ñaari loxo li may wax ni ñu ngi koy dégg yëpp da ngeen ragal yàlla da ngeen ragal yàlla loolu moo ñu tuddee ragal yàlla ak topp yàlla yeneen yëpp ay caaxaan kooku ndeysaan mu ne ma dama bëgg nga ñëw fii di jàngal waa kenn ma ne ko waaw mu ne lu ma lay fay ma ne ko doo ma fay dara mu ne bàyyi sama jëkkër bu ñëwee di la jox paas ma ne ko noonu am naa paas dinaa am paas ma leen leen jàngal premier jour bi damaa teel a ñëw huit heures ci suba mu ñëw ma sonné kenn jëwu ma toog ci buntu kër gi ba dix heures jot di kër gi ubbi mu ne ma noonu day ñëw onze heures ma ne ko waaw mu ne parce que damay teel a yeewu sangu ko defar ko ba pare doog a defar kenn ñu ñaanal yàlla ñu lay sang mbokk yi lu tax gaa yi naan li mu mënoon démb tey la ko mën te tey ñu sang ko moo doon sang boppam tey ñu sang ko da doon solal yërëm tey dañ koo sol da doon dox tey dañ koo yenu yóbbu ko gas ba mu xóot tuur ko ñu ne lim mënoon démb mën na ko tey mu doon tëdd ci lalam tey mu fanaan ci biir suuf suuf si war ko ñu ne lim mënoon mën na ko mu doon fanaan këram di tëdd ci lal duubul li man la duubul li dara mu jidda ndeysaan soxna si di ko bës
di raay sikkim bi
tey mu ngi ci biir suuf suuf war ko ñu ne li mu mënoon mën na koo waanaa ko koo waanoo ko haajuram waaye te léegi nga xew doo mag
amale lool tonoo élève amale looy mat la omo suddoo mbaj omo suddi omo sudduy leydi o wiya ko ko omo waawi wallahi o wawa ɗum ɓe gunta ɗen sine ɓen ni nah limmo noon munatu ko defam ɓen wawi bo timci bammel diwo sériñam an ko sériñ bi sériñ bi si commencé jooy benn waaye xool ko ba jaag ne ko sëriñ bi nekk fi de dafa dem Dakar mu ne ko xanaa dama dof ñu suul ko fii nga ni dafa dem Dakar mu ne bu ñu suuloon fii kay doo gëm ne doo ñëw boo gëmul dañ ko suul ku ñu suul daf la mun may dara ku ñu suul mënul maye sax kaasu ataaya wallaahi ñu nax rek seytaane mooy liggéey rek nga defa ne moo la may fekk mayu la yàlla moo la may kenn yàlla rek la du kenn borom bi nee na wala yu yuqbalu du ñu nangu
min haa ci bakkan boobu addulun njot
da dafa ne da ngay comme tey am ci adduna gis ngeen français boobu nekkoon président euh, kii boobu nu mu tudd te ñu fan yi ñu koy tuumaal États-Unis njaalo Dominique Roscan euh, président la FMI ah FMI bi ko américain yi jàppee dafa joxe caution ñaata lan ñaata million dollars la joxe ñu daal di koy bàyyi mu dem ñibbi këram loolu amul àllaaxira 5 millions la joxe ñu daal di koy bàyyi dem mu daal dem ñu utal ko benn hôtel mu toog benn lu appartement.
loolu amul allah àllaaxira da nga defee àllaaxira da ngay ñëw yàlla ne la waaye yow lu taxoon nga ne yàlla waaw léegi xaaral ma joxe caution bon léegi 2 millions après léegi man ngeen bàyyi loolu amul àllaaxira loolu la yàlla di wax bi laa yuxazu minha adul àllaaxira njot amu fa xam ngeen loolu maandu te du maandu te léegi bu fekkoon ne ku amul léegi 5 millions nag ñu bàyyi la ci kaso bi nga dee borom xaalis yi léegi bu ñu amee ñoom ba joxe caution ñu daal lay bàyyi nga dem ñibbi loolu diine la diine moo tax gis nga diine mooy dëkk gars yi nag dañuy ñuy nax pour ñu bañ a dund diine diine mooy dëgg diine ñëw toll la ñëpp yonent bi waat ci alquran ne wallahi bu fatima sàccoon man yonent bi ma dagg lox bi ngir tollale ñëpp diine dafa tollale diine xamul président diine xamul ministre xamul député xamul sénateur da ngay dégg bi ñu ne non waa ji kenn du ko mën a jugé ministre kenn du ko mën a juger parce que sénateur la te kenn du ko mën a juger parce que député la il faut ñu muri mbalaan mi ba pare mbalaanum député bi ñu doog ko mën a àtte te mbalaan bi nag kenn du ko muri benn waaye bu sàccee daal la gars yi yóbbu ko ne ko yow moom amoo benn mbalaan dañ lay pes ba nga mokk tëj la ah amoo mbalaan yow loolu ay caaxaan la mali xam ngeen lan mooy dëgg ñu góorgóorlu dund l'islam
xeexuñu ba Sénégal nekk état islamique te loolu te loolu dafa war a yomb ah
te Sénégal ñaata million la
président million million million yëpp ay lan la
ay nit jullit ñu tax ñaa teewul islam ñun na te ca keroog Abdoulaye Wade bi mu jëlee loi bi ne da ko yóbbu assemblée gars yi ne ne tous lan ne lan ne tous pas à ma constitution loolu la gars yi def dóor police ay ay xeer ba ñëpp daw constitution bi yàllaalu ko yéen nag lu tax waxu leen ne tous pas ne touche pas
amoo Coran yéen nag waxagu leen loolu moo tax yowmal qiyaam yéen ñëpp nekk ci kanamu yàlla douze millions sénégalais yi bu ñu génnoon ne Ablaye Wade alquran dañuy àtte yow Abdoulaye Wade mënuñu téye
wala mën nañ ñoo wax ji wax ji mooy loolu ñun ñoo bëggul nekk ay jullit waaw kooku mooy suñu keroog 11 le 23 juin ba léegi dafa am dafa am signification ci ak ci ci ci Sénégal histoire du Sénégal 23 juin dugg na dugg na ci lan la ne touche pas
amoo ma constitution loolu lan ngeen wax bu leen laal laal sama constitution léegi nag bu leen laal sama co- constitution mais laal leen sama alquran laal leen sama alquran laal leen sama diine bu ma nekk jullit naa dee dajeeg yàlla nekk jullit bu furax jullit buy jullit di woor di jaaloo di kàcc di fen di sol lu bon di cag down di kiris karas di baali buñ ne asalaatu xayru min an nawmi ma ñëw jaar jàkka ja dóor ñaari rakk dem tëdd nelaw wala du loolu mooy lay si
wala yuqbalu minha adlun yàlla nee na yow yawmal qiyaamati
ñu nangul benn nit jot nga ñëw naan naa joxe lii pour lii amul yowmal qiyaamati
ndax sax ba ngay dem dama dul yóbbu bu dara ni la la yàlla bindee woon noonu ngay demee dañ lay suturaal sax daan lay laxas ci benn perkaal daa di saañ say pax ci ay witeen pour ñu suturaal la yóbbu ni nga juddoo woon noonu ngay delloo doo yóbbu dara fan ngay jëlee loo naan yàlla gis nga loolu moo tax ngeen jàng yàlla mu ne yawmal qiyaam yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi izin bi banihi wa saahibatihi wa axihi wa fasilatihi allati tuwihi wa man fi l ardi jamian yàlla mu ne lan summa yun yàlla mu ne kallaa déedéet kallaa déedéet eh yàlla yawaddul mujrimu bandi kàccoor saay-saay ku bañoon jaamu yàlla ku bañoon woor bañoon julli yawaddul mujrimu law yaftadi yàlla jëlal samay doom ñu ngi nii 14 lañ waaw 10 góor 4 femmes jëlal ñëpp nga lakk yàlla mu ne ko déedéet banii law yaftadi min azabi yawmi izin bi banihi yàlla mu ne ko déedéet mu ne yàlla dolli naa ci sama jabar ñu ne 15 yàlla mu ne ko déedéet kan moo ci tegu ah ginnaaw jabar aaya bi ku mu ci rek wa saahibati jabaram wa axi yàlla yokk naa ci samay frère yàlla mu ne déedéet luñ kum ci rek yàlla yokk naa ci famille bi yëpp jëlal famille bi ñu ngi nii ñoom ñëpp ay njaga njaay lañ yàlla mu ne déedéet mu ne yàlla wa man fil ardi jami'an jëlal waa suuf yëpp yàlla nga lakk nga bàyyi ma nag man yàlla mu ne déedéet xallaa déedéet innaha laza yow tey safara rek nga jëm laza nazaatan lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jamaa faawa gis ngeen safara soo xam ne boo bëggee daw safara soo moo naan la kaay kaay tad'u man adbara wa tawalla gis ngeen kon am na lu ñuy xaar de naan jëlal samay doom lakk jëlal sama jabar lakk jëlal sama frère lakk jëlal famille bi lakk jëlal waa kaw suuf lakk kooku lan la xel nangu dina ne yàlla mën naa dem safara gaa yi du gaajana loolu ay wax la laa wax loolu ay wax la ñaari sàcc dañoo àndoon bi demee kenn ki dugal loxo bi ci biir bitig bi di gas fondement bi pour birig yi rës ñu mën a dugg borom bitig bi jàpp loxo bi daal di koy kët tël loxo bi kët mu xëcc loxo bi ni ko ci ginnaaw daal ne keneen ki dugal keneen ki dugal ñu jàpp loxo bi mu xëcc xëcc ñu jàpp loxo bi mu ne dañoo jàpp sama loxo mu ne bala ñu koy bàyyi mu mel nii bala ñu koy bàyyi mu mel nii est-ce que kooku loolu jaadu na bu ñu daggee lu mu waroon wax nañ daw ñu daw waaye déedéet kon bu nit ñi di dugg àjjana doone naa dem safara pour nit ñi dugg àjjana nañ wax dëgg olof yi nee nañ bu sikki mi di lakkandoo balaa ngay fay sikki mu kenn fay sa sikkim ba pare loolu la xel nangu de ah te nag xel la yàlla di waxal inna fi zalika la ayatin li ulil albab wala yuqbalu duñu nangu minha ci moom adulun njot gis ngeen kon ku yaakaar ne yow bal xiyaam da nga ñëw dugal dara bu ci bàyyi la loolu amul soo joxee sa doom yàlla du ko jël soo joxee sa jabar yàlla du ko jël boo doon joxe famille bi yàlla du ko jël boo doon joxe waa kaw suuf yëpp yàlla nee na jëluma ko kon leer na waa kaw suuf xanaa taalibe yi bokkuñ ci bokkuñ ci wa man fil ardi jamian wala loolu du alquran
bu ñu bàyyi alquran lañu alku yàlla mu ne wala tanfa'uha shafaa ah wala tanfa'uha du ko jëriñ safaatun ak rammu rammu rammu xam ngeen rammu ah ndeysaan ramu dañ way koy sax ci Sénégal dañ koy rammu dañ koy rammu dañ koy way ndeysaan laa ilaha illallah nga gis ñu ne ñun laa ilaha illallah booy boobu sax man ñemewuma ko wax daa noppi rek dañuy way rammu di ko way ku nekk dafa lu la neex ndax diw moo ñuy rammu waaw bu ñu waree dem safara diw mooy ñëw na ñëpp dem aljana ñu dem aljana gars yi nee nañ Abdul Qadir Jeylaani dafa ñëw fekk benn taalibeem dee fii rek mu ne xaaral leen ma ñëw mu yëg kaw asamaan rek dajeeg malakal mawti mu ne ko malakal mawti yow wura ngay rey sama taalibe malakal mawti wax rek mu pes ko tël bët bi tuuru pañe yi yoroon ruu yi daal di wadd nee na ñi dee woon ñëpp daal di dekki taalibe bi daal di dekk mu wàccaat waaye sama taalibe kan moo ko ñeme rey te tàggu woon Abdul Qadir Jeylaani ñeme na lool pes malaak malakal mawti dañuy topp nit di ko jay di ko jay nag loolu xale yi di wax di la jay ba nga nekk beñ beñi ba nga jóg jógu beñe
xale ya koy wax de ku ñu jay nag ba nga jóg jógu beñe di nga peeraat malakal mawti kan moo ko ñemee pes xanaa sax koo gis ngay pes koy gis malakal mawti nit du ko gis di ndeysaan xanaa koy gis ngay pes waaye loolu yëpp nit ñee koy wax rek sëriñ bu nekk Sénégal am na lu la gaa yi waxal ngir tàgg la rek ak di la jaay waaye dara amu ci sëriñ bi waxu ko de nit ñi ñoo koy wax te dara amu ci billaahi wallaahi taalaahi dara amu ci yàlla li mu tëral kenn mënu ci dara wala yàlla mën a tëral dara nit ñëw mu dindi ko bëccëg a ngi nii na nit ñëw indi guddi ñu ngi ci bëccëg nag kenn naqari mu ne bëccëg neexuma dama bëgg a fecc naa indi guddi gi yàlla faalun li maa yurid te laa yusal amma yafal te yéen wahum yusaluun yàlla lu mu def kenn du laaj lu tax nga def ko te yow loo def ñu laaj la ëllëg lu tax nga def ko faalun li maa yurid yàlla mooy rey sa baay rey sa ndey rey say mbokk nga ñëw tiim leen xam nga looy wax alhamdulilahi rabbil alamin maa ngi sant yàlla bu tax demoo commissaire bu tax téléphoné woo gendarme bu tax demoo dig nga téléphoné directeur dig lu ne lan la nga ne ko yàlla moo rey sam pap xam nga lu muy woo 18 lay woo joxe sa numéro xam ngeen 18 ah 18 mooy la pompier lay woo joxe sa numéro ne leen dem leen kër googu am na benn waaye ngeen yóbbu ko fan léegi mu ngoog kon nag nañ leen ragal yàlla yàlla mu ne wala tanfa'uha du jëriñ bakkan boobu dee dee bañoon mooy doon mooy yàlla ashafaatu ramm shafaatun ramm ku jaamul yàlla kenn mun laa ramm yàlla moo ko wax waa safara ba ñu duggee safara ba pare ñu leen di lakk ñu ne leen yéen waa safara lu tax lu ngeen doon xullee ba dugg safara lan lañ wax qaalu lam naku min almusallin wa lam naku nud'imu almiskin wa kunna naxuudu ma alqaa'idin hatta ataana alyaqin lan la moo tey lan moo ci tegu kan moo yeggal yaaya bi fama tanfa'uhum tey kenn kuy ramm du leen mën a ramm loolu du alxuraan wala loolu alxuraan baatu safaa la yàlla utilisé foofu fama tanfa'uhum du jëriñ ñi shafaatu shafiin ramm kuy ramm aji ramm kuy dul jaamu yàlla kenn mënu laa ramm mani examen bi mën nañoo ñaanal 20 points la ñuy laaj mën nañoo ñaanal ko am 19 nag 20 points la ñuy laaj ki am 19 mënees na koo ñaanal wala mënees na ko mënees koo ñaanal buñ demee conseil discipline conseil maître mu ne waaw non non kii booy bi booy bu baax la vraiment baax na yaru na et puis am na 19 ñu ne waaw bàyyi leen ko mu jàll mais ñu laaj mais yow nga ñëw indi deux waaw yow dëgg dëgg nag nañ leen wax dëgg nag deux wala nga ñëw sa indi zéro ba pare yow yaa fi gënoon xamade ci classe bi yaa gënoon réew ci kanamu professeur yi ba pare ñëw amoo dara wax dëgg yàlla yow kenn mënul loo dara mbokk yi benn ndeysaan benn enseignant professeur buy jàngale ci sem yi daf may nettali benn chaîne bu def bu am yërmande ndeysaan nee na ñoom dañu dem defi examen BFEM ñu dem benn benn école ñoom ñu war a loger ci école bi ndeysaan am benn xale bu jigéen bu baax bu yaru di leen toppatoo bokk ci élèves yi di leen may lekk di leen indi lépp résultat yi génn xale bu jigéen bi amul ñoom ñëpp nag ndeysaan mu manqué le point yu bëri nag ñoom ñoom ñu ñu daje nag ñu ngi xool nan la nan lañ koy dimbalee ba mu jàll ñu xool point yi ñu gis point yi sori lool te xale bi dafa yaru lool baax lool bëgg leen lool ñoom ñëpp ñu rus ndeysaan mënuluñ ko dara gis ngeen gis ngeen de kii sax ku baax la waaye bu doon ku réew nag est-ce que danañ fa toog sax di daje te nag ki réew fii li ma ci nam mooy ku dul jaamu yàlla parce que ku dul jaamu yàlla ku réew nga ndax munoo baax ci nit ñi yaru ci yàlla yaru ci nit ñi baax ci- bon ci yàlla wala bon ci nit ñi baax ci yàlla ah jaamu yàlla rek
yàlla boo baaxee ci moom da ngay baax ci nit ñi xayrukum xayrukum fi ahlihi wa ana xayrun min ahli gis ngeen yonent bi mu ne ki gën ci yéen mooy ki gën a baax ci waa këram te man maa gën a baax ci waa sama waa kër kon loolu muy tekki mooy moo fi gën a baax sallallahu alayhi wa sallam wala tanfa'uha du jëriñ bakkan boobu laan kon bañ a jaamu yàlla shafaatun ramm wala hum déet bakkan boobu yunsaruna muy am ku ko dimbali ëllëg yowmal qiyaam bu ko yàlla ne malaaka yi ee jël leen ko safara amul kenn ku koy dimbali bu fekkee ndimbal lañ yaakaar ba laan ko bañ a jaamu yàlla yàlla nee na bu ma nee zabaniya yi sa naddu u zabaniya jàng ngeen ko wala jàngu leen ko fal yadu naadiyahu yow mi jaamuloon yàlla woowal sa pénc woowal sa mbooloo woowal say taekwondo say karateka woowal say kën fumaan nañu ñëw fal yadu naadiyahu na woo péncam man yàlla bu wooyee penc mi sa nadu dinaa woo az zabaniya ñu ñëw zabaniya yi ñëw acca bismillah doo am ku la dimbali de abdallah ibnu abbas nee na bu yàlla ne bu yàlla ne malaaka yi xuzu jàpp leen waa ji xuzu jàpp leen ko mu ne juróom ñaar fukki junni malaaka ñoo lay jiiroo sabuuna alfu malik xuzu la yàlla wax boo waxoon xuzhu jàpp ko kon benn malaaka la waaye xuzu jàpp leen ko fa xullu yeew leen ko summal jahima sallu après ngeen rokkos ko ci safara jahim gis nga mbugal mi dafa métti sax ba malaaka yi dañuy yéemu ne yàlla lii lu ko waral yàlla mu ne innahu kaana laa yuminu billahi alazim kii gëmul woon yàlla mu màgg mi innahu kii kaana nekkoon na ci àdduna laa yuminu gëmul woon billahi alazim allahu akbar wala yahuddu ala taamun miskin loolu métier tey ki war a nekk xaritam fii ci àdduna kooko koy def nii fa laysa lahu lyawma haahuna hamim fa laysa lahu lyawma fii ci alaxira ha huna fii hamim soppe ndax soppe moo koy def nii ku sa soppe di def noonu nag kon ku lay dimbale kon alaxira ndimbal amu fa mbokk yi aaya yi ñaari aaya yi liñ ciy jële mooy wujubu zikri ni'amillahi ala al abd doomu aadama war na fàttaliku xéewal yi ko yàlla defal sànq yàgg nañ ci baatu xéewal trop def nañ ci une heure de temps pour wax lan mooy xéewal kon doomu aadama nay fàttaliku xéewal li ko yàlla defal li yajida bi zalika daafian nafsiyan li sukriha loolu lan la lay jural booy fàttaliku xéewal yi la yàlla defal mooy da nga koy sant moo tax yàlla mu ne la wa amma bi ni'amati rabbika fa haddis sooy fàttaliku xéewal yi rek nga sant ko is gaayatu zikri hiya sukr lan mooy jubluwaayu di fàttaliku xéewal bi di ko wax mooy ashukuru sant yàlla man kat yàlla defal na ma xéewal alhamdulilahi rabbil alamin yàlla ma defal xéewal maa ngi sant sama borom mais fii da ngay dégg nañ sant diw maa ngi sant sama ndey da ngay dégg mbër yi ma ngi sant sama ndey ak sama baay bi teeri ndeysaan kenn du sant yàlla Sénégal baas yi fi gën a rëy ñu ciy rey ay nag ak ay ginaar ak ay ak ay kenn du ci sant yàlla sa diw la ñuy sant moo tax yàlla nee na tribunal bi gën a rëy man ak jinne yeeg nit ñi li ko waral mooy man yàlla maa wërsëg la ñu sant yeneen leen keneen man yàlla maa indi wërsëg bi maa indi ceeb bi jële ko ba siin ñu yor ko ci bato yi mu romb bi kër yëpp ñëw ba sa kër nga lekk ba suur na jërëjëf diw moo niinal ceeb bi xanaa sax nga jot nga nga nga wax sa jabar jërëjëf bopp ne soo soxna jërëjëf sonn nga ci waa ji ñàkk jom weesuwul nga lekk ba suur sant keneen ku dul yàlla ñàkk jom weesuwu ko am nay sant moo tax yàlla moo mën a muñ yàlla bind ñu jaamu keneen mu wërsëgal la ñu sant keneen nañ sant yàlla yàlla lim ñu defal ci xéewal wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha su ngeen doon lim xéewal yi billahi di ngeen di dee du ngeen ko wàññi jëlal bët rek li muy xool benn bët bi rek waxuma ñaari de benn bi rek li muy xool jëlal nga compter ko jëlal benn nopp bi li muy dégg jëlal benn loxo bi li muy liggéey jëlal benn tànk bi li muy dox ma ni lekk bu rees sax xéewal gënu koo rëy billahi bu fekkoon ne bi nga xëddeeg léegi ndogu bi rees xëdd bi reesul doo tal ñëw tafsir ñi xëddoon yëpp te xëdd bi reesul bi ñu toogee 10 minutes ba midi dañ leen yóbbu hôpital wala xëdd bi bi mu bëggee génn mënul génn yàlla tëj bunt bi nga onk def lu nekk ñu jël saabu dugal ci nga dem jël loolu pharmacie loolu ñu jaay pharmacie nu mu tudd xaw ma lan am na fàttinatur bi soo bëggee dem douze loolu mënul génn mënul génn li liñ ciy def ci suuf très bien ñu daal di koy def ci frigo bi ba mu sedd ñu daal di koy dugal nga dugal loolu yëpp bañ a génn nga dugal pakkat bi yëpp xëdd bi bañ a génn sa waa kër duñ tal ndogu waxuma yow de mais sa waa kër sax léegi dootuñ tal ndogu ñoom ñëpp dañuy ñëw wër la ñi naan nañ ko jox lay duur ñee nañ ko jox gerte ndax biir bi daw allahu akbar waaye nañ sant yàlla gars yi nan leen sant yàlla nan leen sant yàlla nga naan mu rees nga lekk mu rees san nañ sant yàlla nga lekk mu neex nga rees mu rees santal yàlla waaye bañ a sant yàlla te yàlla moo lay may muy génn def lépp nga bañ a sant yàlla kon aaya yi ñu doon jàng jëlee mooy sant yàlla ñaareel bi
mooy wujubu ittiqaayi azaabi yowm alqiyama mooy dañoo war a ragal mbugal yowm alqiyama lépp loo xam ne ab jàmm bu ko defee yàlla mbugal ko na nga sori loolu mbugalum yowm alqiyama xëejul ci nit de ittiqaa i nañu mooy te ndiku azaabi yowm alqiyama mbugalum yowm alqiyama loolu nan lañ koy mooy te ndikoo mooy bil imaani wa saalihil aamaali ak jëf ju baax gëm yàlla ak jëf ju baax baada taxalli an shirki ginnaaw ba nga soree bokkaale wala isyaani ak ay bakkaar soo bëggee mucc ci mbugalum safara gëmal yàlla jaamul yàlla mooy tëndikul bokkaale mooy tëndikul ay bakkaar ñetteel bi mooy istihalatul fidaai yowma alqiyaama yowma alqiyaama kenn du fa ñëw di joxe dara ñu lay bàyyi kenn du fa ñëw naan yàlla gaa yi samay gaa lañ bàyyi leen kenn du fa ñëw yowmal qiyaam ñu lay dimbali bu fekkee da ngaa dee ci bokkaale da ngaa dee ci mooy yàlla da ngaa dee ci wuuteeg yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ñetti mbir yi lañ doon jëlee ci ñun hidaayatu aaya ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala mu jëfal ñu ko suba ak jàmm asalaamaaleykum